Yuusuf ma nga ca xabru ba di jaamu yàlla waaw xëyiti suba ñëw ni leen romb naa Moussa ma nga ci xabroom di jaamu yàlla ba benn bis Ababacar ni ko xanaa yonent yi ñoom dañu am droit jaamu yàlla ci seen xabru ca la ko ko jàngal nag mu ni ko yonent yi su leen neexee jaamu yàlla fekk génn nañu àdduna ñuy jaamu yàlla ci seen xabru waaw waaw kon ñoom amuñu amuñu amuñu temps wu rek tëdd waaw ñoom amuñu temps wu tëdd waaw te kenn ku ci ne dox nga mission boo xam ni kenn xamul lan waaw kenn xamul lan la waaw seetal mission yeneenti yàlla yusuf yeneenti yàlla yusuf ñu ne la dix ans de prison waaw dix ans de prison waaw ci loo xam ni ñoo ko tuddee viol mais ay tappale la yoo kenn mënul nettali waaw ñu ne la ci dix ans de prison waaw nga xam ni presque mission am yëpp mën nañ ci prison la ko passé waaw ndax nu mu dem mu ngay jëriñ bëggatun ko génne bëggatun ko seetal léegi nag dañ ko fa bàyyi mu nekk firikatu gént gi firikatu gént waaw moo tax Muhammad ibnu Sirin am na ñu ko xam ci wàllu téere Muhammad ibnu Sirin waaw dama ko laaj ca xadaratu ilaahi ba dafay teew nitu yàlla la ma ni ko yow foo mënee firi gént ba tasaare ko mu ni ma bis dama dajeeg yenent yàlla yuusuf mu ni ma tàllalal sa làmmiñ ma tàllal mu tëf li sama gémmiñ waaw mu ni ma keroog lépp luy gént xam naa ko waaw mu ni ma keroog lépp luy gént xam naa ko moo tax bis bi muy génn àdduna bis bi muy génn àdduna moom Muhammad ibnu Sirin fekk na mu toog nii ak soxnaam muy reer waaw muy reer te gis nga nitu yàlla la waaye ku bari woon bor la waaw ku la ndax amul woon de te gis naa ñu ngi commercialiser ay téeréem yi di ko jaay lu kenn xamul te bi muy génn àdduna sax bàyyi na fi ay bor Muhammad ibnu Sirin waaw ku bari bor la waaw nitu yàlla la waaw jëlul woon bor nii dafa amul woon waaw mu toog ak soxnaa mu defaral carrière muy reer nii rek benn mbokk ñëw ni ko dama bëggoon nga firil ma benn gént mu ni ko lan nga gént man de maa ngi reer mu ni ko dama gént mu ni ko gént gi yow la concerné moo tax mu ni woon naa ñëw wax la ko sax tax guddi na waaye comme yow la concerné mu ni naa la ko wax mu ni ko ci nan la mu ni ko dama gént benn sequ ganaar benn sequ ganaar bi ngi taxaw nii ma gis weer bi di dugg ma gis weer bi mel ni luy luy sow comme ni jant di sowe bi weer bi di sow sequ ganaar gee ngi taxaw sab ba noppi ma dégg mu ni Muhammad ibnu Sirin après ma yeew bi mu ko ko waxee mu daldi tegg loxoom ci reer bi daldi bàyyi ba soxna ci dem mu ni soxnaam xam nga kii lu mu wax mu ni ko kii de gént la la nettali mu ni ko nee na juróom-ñaari fan ma dese ci kaw suuf waaw ku mënoon firi gént la mu ni ko nee na juróom-ñaari fan moo ma dese ci kaw suuf soxna si jaaxle ni ko nan nga ko xame mu ni ko fileeg juróom-ñaari fan li ñuy tudd ñun naan weer bi dana xëy mu ni ko weer bi dana xëy seq boobu mu ni mu gis mu taxaw kooku noddu woote barzaq la sama tuur bi mu tudd mooy wane ni man la nu waaw nii la ko ko firile waaw noonu it la demee ñu teg ci juróom-ñaari fan ca la génnee àdduna waaw waaw pour wax la ni am nañu yàlla may fàttewu ci loolu am na ñu yàlla may fatu ci ñu mën a firi gént waaw waaye gént moom la ci sëriñ Babacar waxoon loolu laa ci gëm nee na nitu yàlla piir moo ko mën a firi wala ku ñeme yàlla piir loolu la ni lu tax mu ni li nga li nga gis bi ngay nelaw kay nitu yàlla piir la mën a wax nu mu demee ki ñeme yàlla piir mu ni moo fekk kuy nelaw gis ay gisam ñëw ni ko nàngam rek mu ni ko nàngam ak nàngam la te moom nelawul woon waaw waaw pour wax la nin koy firee léegi demewul noonu ni mu koy firee léegi demewul noonu ngay gis boo xaalis mooy nga am xaalis bu dee weccit bu dee xaw ma kayitu billet su ko defee nag boo géntee billet wala weccit rek nga defe ni xaalis ba ñëw na fekk na du noonu nit ku nekk ak gént lu muy firi ci moom te loolu nit yàlla yi ñoo ko xam waaw fukki nit mën nañu bokk benn gént te dunu bokk tekk waaw ndax kenn ku nekk booy atti géntam da nga koy xool ci situation bi mu ne waaw ci situation bu mu ne danga koy atte ci situation moo tax nitu yàlla yi ñoo ko xam waaw nitu yàlla yi ñoo ko xam su ko defee nag ñoom ñoo la mën wax ni lii la wala la leel waaw Muhammad ibnu Sirin ku ko mënoon la di nitu yàlla bokkoon ci quarante wali yi gënoon gradé ci jamono waaw te bi muy génn àdduna bàyyi na fi ay bor waaw bàyyi na fi ay bor ndax amul woon waaw gis nga am am ak wilaaya jotewuñu dara waaw am am ak wilaaya jotewuñu dara waaw te léeg-léeg nga gis léeg nga gis wolof tooñe nit ni moom de xanaa balaa muy jaay wilaay mu am lu mu lekk ba noppi <laughs> te jote dara waaye gis nga wolof comme dafa mën a xaste léeg-léeg nga mu wax ko nit waaw waaw ne ah, de kilifa lay jaay waaye bàyyi ba mu am lu mu lekk ba noppi rek te jotewuñu wuñu dara waaw ndax yàlla lu ci ne moo koy nattoo nitam waaw yàlla lu ci ne moo koy nattoo nitam xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay moom nga xam ne ci barkeem la ñëpp di ame te moom moo gënoon sonn ñëpp yonent bi moo gënoon sonn ñëpp waaw bés bi Umar ñëwee ak xaalam ni ko li ma gis naq dina ma lool yonent bi ni ko lan nga gis ndax dañu commencé di di tooñ yàlla tooñ boo xam ni mënatul ci dara wala lana xew ci màkk Umar ni ko déedéet waxuma loolu yëpp waaw yonent bi ni ko lan nga wax mu ni ko dama la gis nga tëdd ci basang bu xotteeku waaw dama gis sa basang bi ngay tëdd xotteeku yéeféer yii di tooñ guddeeg bëccëg yàlla tëdd ci étage te mënuma digérer lool waaw yonent bi ni ko Umar da ngay jëndee nubuwa ak alal mu ni ko nubuwa bu doon jaay alal am na njëgam Umar ni ko déedéet mu ni ko ma nga noonu bàyyi leen nu tëdd seen étage te amuñu nubuwa nun nu tëdd sunu basang bu xotteeku ànd ak sunu nubuwa waaw jëla Umar toog ci suuf delloo si xelam xam ni mbir yi ndeke doxewul noonu waaw parce que yonent bi yarkat dëgg la woon yonent bi yar yarkat dëgg la woon ñi mu am ñëpp ci loolu la leen yéeme mooy ci yar bi mu leen di yar yar bi dem na ba ñëpp nangul ko ko xam nga nangul ko ko moo tax ca période am ay détracteur am lan noonu daan wax dañ daan wax boo demee ci Muhammad da koy nangul waaw ñu ni mënuñu nangul Muhammad ñu ni déedéet boo demee ci moom bis bu la waaree bis bu la waaree dafa neex làmmiñ ba bu la waaree booy tëb di ko taf ci sa dënn ndax kontaan sax doo ko tey loolu lu ñu te boobu dañ ko nanguloon sagesse am waaw boobu dañ ko nanguloon sagesse am ndax sages bi mu doon doxe moo tax waaw parce que gis nga la ñoo tuddee philosophie spirituelle mooy bu la yàlla dimbalee nga dem ba yàgg ba ba yàgg waa xayb ngeen bokk vision waaw waaw yàlla dimbalee ba yow ak waa xayb ngeen bokk vision côté boobu la ñu mënta wax nit ki ni ko ni léegi nag mën nañ ne naan na ci philosophie spirituelle te wax yàgg waa xëy bu ngeen bokk vision yombul de waaw waaw yombul parce que lii nu foog du loolu waaw waaw lii nu foog du loolu waaw maanaam wax ni xëy bu laay doxe wax ni waa xëy nee ñu déedéet loolu taxul ngeen bokk vision waaw waaw loolu taxul ngeen bokk vision bokk gis-gis waa xëy mooy dem ba sa élévation spirituelle nga mën ko seddeel sa bopp waaw mën a seddeel sa bopp sa élévation spirituelle mën ko seedeel sa bopp waaw na nga ko mën a seedeelee sa bopp mu ngi doore ci sa sellete waaw boo demee ba loo ñeme woon def ba nga sellagul woon ñemeetoo ko def commencé nga sell waaw mag ñi noonu lañ ko daan attee dañ ni boo demee ba la nga ñeme woon def bu jëkk ñemeetoo ko def sa sellte commencé na di seedewu waaw te bu seedewoo ci loolu la ñuy mën a tuddee tey jii la wax wàllu élévation spirituelle te élévation spirituelle nag yombul waaw yombul parce que dafa war a ànd ak yaqiin waaw élévation spirituelle yaqiin la war a ànd waaw waaw yaqiin nag yombul mooy certitude waaw mooy certitude mooy nit dem ba xam ni li muy jëf nit dem ba yëg ni li muy jëf lu yàlla gërëm la loolu la noo tuddee certitude waaw certitude du lañ koy tuddi waaw dem ba dem ba mu leer li ngay jëf yàlla gërëm na ko waaye gis nga am na bis yonent bi sallallahu alayhi wa ubay ibnu kaabin xam nga ubay ibnu kaabin dafa amoon benn euh, relation étroite ak yonent bi ubay ibnu kaabin yàlla moo waxoon yonent bi ni ko demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan bi mu déglu la moom waaw loolu ku mu jàngalul dara dootu la jàngal yàlla moo wax yonent bi ni ko demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan mu déglu la waaw te alxuraan wàccul ci uba ibnu kaabin ci yonent bi la wàcc waaw loolu ku mu jàngalul dara dootu la jàngal léegi nag li jëm ci wàllu certitude yonent bi di ci waxtaan ak ubay ibnu kaabin mooy la ñoo tuddee yaqiin mu ni mu ni moom yonent bi ni ubay ibnu kaabin ni ko dama am yaqiin ci yow ni yàlla gërëm na la mu defe ne ubay ibnu kaabin dafay jóg wax ka jërëjëf muhammad wala dara ubay ibnu kaabin sëgg commencé jooy ndax li ko yonent bi wax ni ko dama am yaqin ni yàlla gërëm na la mu sëgg commencé jooy yonent bi di déglu rek dafa ni comme nii ñuy waxaal la jooy yi gën a tar rek waaw mu jooy jooy yu metti ci kanamu yonent bi waaw yonent bi dem ba ci kerseem mu ragal nit ñu wax ni ñëw na moom ba ci ubay ibnu kaabin di ko jooyloo nii jooyu metti yi waaw jooy ba yëqat waaw yonent bi ko amoon teggin la mu dem ba ba am kerse sax nii nit ñi daañu wax ni mi ngi woon ci jàmmam jooyloo naa ko ba mu yëqat mu di ko déglu ba ubay ibnu kaabin pare yonent bi génn benn musuwaar ci poosam fompal koy rangooñam laaj ko ni ko lan ngay jooy su ma waxee ni ci yaqiin xam naa ni yàlla gërëm na la kay loolu yàlla moo ma ko waxlu te bu la yàlla gërëmee da nga war a bëgg ubay ibnu kaabin ni ko dama mësoon sonn ci jaamu yàlla léegi nag wax nga ma yàlla gërëm na ma lu ma doon def war naa ko doubler te sama yaram àttanu ko waaw moom lay jooy nii léegi sama yaram àttanul li ma war a def waaw waxul gërëm gi de waxul gërëm gi de dafa ni ko fu mu gërëm dafa ni fu mu ne yaramam attanul li mu war a def léegi waaw waaw ndax li mu waroon def daf ko war a def ñaar léegi léegi nag comme àttanu ko moom lay faje jooy yu metti yi bay yëq waaw waaw seetal boobu boobu boobu boobu philosophie waaw waaw seetal boobu philosophie lu kenn xamul lan waaw yàlla gërëm na la nga jooy ba yëkkat ba yonent bi mujj am kerse ci ñu fekk ak Ubay ibnu Kaabin wax ni moo ko jooyloo nii jooy yu metti yi waaw ñu pare mu jël mouchoir fompal kay rangoñam laaj ko ni ko su ma nee yàlla gërëm na la kay sa xel dafa war a dal mu ni ko moo tax may jooy jooyu metti ndax jaamu yàlla bi ma war a taxawee dèjà présent sama yaram àttanu ko te war naa ko def waaw léegi nag bu ma jooyee yàlla yërëm ma bu ma doolee tuuti xëy na koon mu yërëm ma ci lool waaw xoolal ma philosophie boobu waaw te am na ñoo xam ne boo nee yàlla gërëm na leen kese li ñuy njëkk def mooy wut mat laa duubul li bu mag taal seen clim daal di tëdd soo waxee nu ni yàlla gërëm na ma man sa man amatuma problème yaa am problème <laughs> waaw ubay ibnu kaabin am réflexe bu tolloog mu xam ni bu la yàlla gërëmee danga ko war a delloo njukkal lu ëpp lum la gërëm waaw waaw te nee na yaramam àttanutu ko waaw na yaramam àttanutu ko waaw mu sonn si waaw mu sonn si ndeysaan sonn si jaamu yàlla bi waaw waaw moo tax nitu yàlla yi noonu lañ mel waaw loolu ñoom seen philosophie la waaw loolu buñ ko xasee ba yar ci yow nga nangu sonn ci jaamu yàlla defal nañ la lu ëpp solo ci sa dund waaw ndax lu jafe la nag waaw lu jafe la waaw xam nga mag ñi nee ñu mag ñi nee ñu magu sufiyanke yi ñoom ñiy yare dañu wax di nga dëkk ci àll nee ñu nga dëkk ci àll nekk ci place boo xam ni place la boo xam ni la fa ne ci lu nit mën a yittewoo barewul nga dund ci tumuraanke nee nañu nga jaamu yàlla daf lay yomb waaw ndax tumuraanke bee tax waaw waaye ñu wax ni nag xam nga lu jafe mooy nga dund ci loo xam ne mën nañ ko tuddee luxe ba noppi ñame jàmm yàlla waaw nee nañu loolu dafay jafe waaw te wax nañ dëgg waaw wax nañ dëgg wax nañ dëgg lu metti la moo tax fay yi du tollo fay yi di tolloo ki nekk ci àll tumrank di jaamu yàlla ak koo xam ni mi ngi nii lalam mi ngi nii climatiseur am a ngi nii bu ko neexoon léegi tëdd bu ko neexee sax nelaw ba fajar jóg wax ni dama doon jaamu yàlla te kenn du ko mën a weddi mu fanaane naafile ba fajar kooku seen fay du bokk waaw kooku seen fay du bokk mukk waaw ndax yàlla la muy fay moo tax waaw yàlla ci situation bi nga ne ci situation boobu la lay àtte moo tax nag ubay ibnu kaabin moom teel a wax yonent bi ni ko fu mu ne suma yàlla gërëmee war naa def lu ëpp lu ma daan def waaw mu ni ko nag te malheureusement sama yaram àttanu ko ndax lit léeg-léeg mu bëgg dara fekk yaramam àttanu ko waaw nit bëgg dara fekk yaramam àttanu ko waaw bu ko sa yaram àttanul nag nga xam rek li nga xam ni yàlla def na ko ci yow nga fexe def loolu te doo ci boole ngistal waaw te yamook loolu waaw yamoog loolu lu am solo la waaw waaw loolu dafa daan dal mag ñi loolu mag ñi yàgg na leen di dal waaw mag ñi yàgg na leen di dal ndax benn góor nee na benn mbokk ñëw na ci nit ni ko mag ñi ñu ci bari ci ñoom dañuy naafila kaamilu alquran guddi waaw te loolu Seydil Hadji Malick moo ci jiitu woon kaamilu alquran waaw jàng fatiha jàng sóoratul baqara ba sóotu Maryam jàng fatiha jàng sortu Maryam ba naasi waaw mu ni ko yar na ci mag ñu bare waaw waaye nee ñu benn mbokk dafa ni loolu mënul nekk xam na mag mu mu yar mu ni lool lay naafila mu ni dina ko gëstu ji waaw bàyyi bi mag mi lal sijaadaam deram ca biti di julli mu dem làqatu ca sàkket ba di yër ndax noonu lay jàng mag mi jàng faatiha ci naafila bi sóoratul baqara ci naafila bi ala imran ci naafila bi di jàng di jàng di jàng ba ca sortul maayida ka ko doon ka ko doon yër ci sortul maayida la nelawe fa mu tëdd waaw ndax mi ngi teg loxoom nelaw na waaw dafa dégg jékki saa rek dégg ñu naan asalaatu xayrun mina naw waaw mu tëb daal di daw jàkka ja ba mu demee fekk fa mag ma fekk fa mag ma mag ma ma nga ca jàkka ja pare naa fi lam ba ma nga toog ñu salaatu muy julli ñaari ràkkaam waaw waaye gis nga julli ñaari ràkkaam julli suba ba mu demee ba pare nag ba mu demee ba pare ca la ko mag ma woo nag ni ko ah bul yëddooti kuy julli dangay ngay fexe julli ni moom waaw mu ni ndekk góor ga yëg na ma di te ma woon ca gannaaw sàkket mag ko bul yëddooti kuy julli da ngay fexe julli ni moom wax da dëgg mu ni ko ndax yëddu ji ndax nit a ngi naafila fexe jéem a naafila topp ci gannaaw moo ko gën waaw ndax li nga ciy nettali soo paree mu ni ko njëriñ bi barewul waaye gis nga ñoom gis nga ñoom seen jamono ak façon lekk yi amoon ak volonté bi ñu amoon kenn mënu wax lan la waaw kenn mënula wax lan la waaw te léegi nit a ngi daj lu nekk ci euh, wàllu médecine moderne daj lu nekk ci wàllu comprimé naan lu nekk te boo naafilee ñaari rakka balaa min wi fekk gëmmentu nga ba mu ci da ngay bëgg daanu <laughs> waaw loolu kenn du xam lan la loolu kenn du xam lan la waaye nun ñu nu am ñëpp dañ leen daan yar ci volonté bi waaw dañ leen daan wax volonté rek waaw volonté rek waaw waaw jamono bi ñuy liggéey zawiya bi dafa naa imam Pape Alioune bu Dakar waxoon na ko bi moo demee naa ni bu ngeen bëggee gis ay malaaka dem leen Medina ñooñu duñu nit tax dañuy liggéeyee <laughs> te fekk volonté rek la waaw volonté rek la ndax dama leen daan wax ni yonent bi li mu daj ci xare ñi mu àndal ñoom ñu àndandoo moom daj ko ci xare ñun bu nu mënul daj ci diine sax lu néew kon ñun ëllëg war nañu xoolaat suñu bopp waaw yonent bi li mu daj ci xare waaw waaw nga xam ni dañuy woor dañuy woor weeru koor ba noppi di xare waaw te seen bakkan xëj na ci waaw li nu daj pour diine taxaw ma ni ñun bu nu mënul lu tuuti sax donte du leen dab mais ñu xaw rek jéem tuuti ci suñu volonté ma ni kon dana des waaw te loolu dëgg la waaw te loolu dëgg la waaw ndax yonent bi loo message boobu rek la ma sa véhiculer waaw message universel message spirituel essence spirituelle waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni bi mu ñëwee moom même message yi la jàllalewaat mais daf ko def sous forme de zikr waaw ma ko lu tax mu ni ma ndax ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waaw mu ni daf ko def sous forme de zikr waaw loolu moo indi la ñoo tuddee wérd waaw moo indi la tuddee wérd waaw daf ko def sous forme de zikr gis nga wérd bi li muy jëriñ nit werd bi li muy jëriñ nit salaatul fatiha bi ngay jàng lim lay jëriñ waaw laa ilaha illallahu bi ngay jàng lim lay jëriñ istixfaar bi ngay jàng lim lay jëriñ jawharatul kamal bi ngay jàng lim lay jëriñ moo tax mu ni moom daf ko def su forme de zikr waaw mais nee na même message yi la te wax na dëgg ndax Cheikh Tidiane message universel am moom la ñëpp séddu waaw message universel am la ñëpp séddu ki nga xam ni tuddee na boppam Tidiane ak ku dul Tidiane ku am beneen sëriñ yéen ñëpp yëg ngeen ci xay ba ni xatmee am na fa te yëg ngeen ni moom mooy xaatim bi moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani kon mooy message universel bi jàll na message universel bi ñi jël wérd ñoo ko jagoo waaw message universel bi ñi jël wérd ñoo ko jagoo waaw ñi jël wérd ñoo ko jagoo waaw essence spirituelle bi ñi jël wérd mu nangu leen ñoo xam ñoo xam na mu mel. ndax mën nga jël wérdi yi du la nangul waaw te loolu te loolu buñ la ci ommatee rek mooy ñi ngi lay ommat ci yiw waaw waaw buñ la ci ommatee ñi ngi lay ommat ci yiw waaw ci yiw lañ lay omat waaw waaw wax naa leen benn jamono ni ca xayb bin ñuy wan tableau bi ñu bind tableau bi ñu bind tarixa yu ñu agréé liir naa ci yoo xam ni ñu bare boo leen ko laajoon fii turu tarixa yooyu xamuñu ko parce que tarixa dañ koy agréé liir naa ci ñoo xam ni boo leen laajoon turu tarixa yooyu fii ci réew mi xamuñu ko te ñu ngi leen bind ca xay bu ni agréé nañ leen waaw agréé nañ leen waaw waaye drapeau bi drapeau bi drapeau bi benn la drapeau bi mooy drapeau yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw drapeau bi moo ko yor te jawharatul kamal salaatul fatiha ñooy drapeau bi kon yooyu boo ci bokkee sant yàlla dafay doon sa waaw yooyu boo ci bokkee sant yàlla dafay doon safarat farat waaw te mooy Ababacar discours bi mu def bi mu yëgee ni yonent bi génn na àdduna ba ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle mu tenir discours am teewul ba léegi ñëpp jaaxle nañ waaye ba léegi mënuñu concevoir être bu mel ni yonent bi ci wàllu pureté ñu suul ko ci biir suuf Alioune moom loolu moo ko doon déranger Ousmane loolu moo ko doon déranger Umar loolu moo ko doon déranger Ababacar wax na waaye dellusi nañu waaye ba léegi mënuñu concevoir être bu pur bu mel ni yonent bi nu wàqi suuf ba noppi nu ni sotti nañu suuf ci kaw ñoom daal loolu mën mënuñu ko digérer bi leen Ababacar di delloo si dafa ni leen nun sens bi nu am nun loolu lañu war a savourer fu mu ne waaw kii denc nañ ko tey ku ko gisaatul ci baatin wala ci xayb mënatoo ko teg bët waaw te ñun dund ak nanu moom ci shahada waaw ñun ànd na roog moom te leer nanu bu nu delloo xayb dañ ko fay fekkaat mu dinu xaar waaw ci la Ousmane giif ci la Umar giif ci la Alioune giif waaw waaw kon mooy demul waaw kon mooy demul ndax ku ci ne ci ñoom yonent bi defoon na ci yow cër bu tollook nga xam ni diggante xayb ak shahada sorewula waaw sorewu Umar daan na julli tàkkusaan toog ba timis fekk ka fa janoog aljana jannatil firdawsu nii di ko xool te bët la ko daan gisi waaw waaw yàlla mayoon na ko loolu ci kashf waaw yàlla mayoon na ko loolu ci kashf waaw Alioune meloon na noonu ci fathu moom tam waaw lu mu bëgg xam ci digganteem xayb ak mu xam ko waaw waaw Ousmane it meloon na noonu Ababacar meloon na noonu ku ci ne yàlla defal na la lool ku ci ne yàlla defal na la loolu ci ngëneel waaw mas naa ko laaj Cheikh Tijani Chérif ma ni ko euh, Umar moom euh, toogaayam boobu mu daan toog di xool jannatil firdaws dafa daan médité ci fruit ya fa ne wala rafetaay bee ko ci jaaxaloon wala la Cheikh ni ma li mu doon def duñ ko tuddee méditation contemplation lañ koy tudde keroog laa xam ni ndekete contemplation ak méditation am na différence waaw mu ni ma Umar li mu doon def kenn du ko tuddee méditation contemplation lañu koy tuddi mu ni ko lu tax mu ni dafa bëggoon xool ngëneel yi yàlla defal jullit yi nga xam ni ëllëg ñoo war a dem aljana mu xool ngëneel ya na mu toll mu fexe ba sant yàlla ci dundam sant bu ni toll balaa mu fay dem ñu ko koy jox te bu boobaa dootul amati occasion bu mu sant yàlla waaw mu ni ko kon moom li mu doon def dafa doon jàmm yàlla di mu ni ma exactement dafa doon jaamu yàlla ndekete lim doon toog sax dafa doon jaamu yàlla moom Umar waaw mu ni dafa doon jaamu yàlla waaw ca la ma waxee nag eh, ixlaas sooratul ixlaas mu ni ma secret bi ci ne mu ni ma xamuloo lu ne am na fu ñu koy jaarale gis nga mu ni li yonent bi defal Umar ci bëtam yi ba mu mën a gis aljana mu ni ko waaw mu ni ma secret sooratul ixlaas moom Cheikh Tijani Chérif moom ko wax ma ni ko secret ci nan mu ni ma danga koy naafila cent vingt neuf ci ñaari rakka guddi gu ne waaw bii fatiha cent vingt neuf bii fatiha cent vingt neuf waaye keroog bis bi moo ko waxee maa ngi fàttaliku ni koor la boobu maa ngi ca jaami u masjidi nuur ci saalu xalifa Cheikh Jibril Jaañ bi keroog dama naafile balaa tàkkusaan def cent vingt neuf yi defaat ko waaw dama teg sama boobu ci fauteuil bi rek seen buntu aljana nii waaw waaw ci cent vingt neuf suratul ixlaas ma xam ni Cheikh Tijani yi lu nekk xam na secret waaw waaw te sooratul ixlaas la wax na dëgg waaw mu ni ma moom la yonent bi jël defal ko Umar ci bëtam yi moo tax fu mu toog di gis aljanna jannatil firdaws waaw waaw te léeg nga dégg nit tooñ yow ndekete alxuraan yëpp yow ixlaas rek nga mokkal daal di reetaan nga dégg ni ko man di mën naa ixlaas mu ni yow kon ixlaas rek nga mokkal reetaan te ndeke ixlaas sax mooy caabi buntu aljanna waaw mooy caabi buntu aljanna waaw waaw ndax naafile ba gis nga secret ba ci nekk waaw fekk ñu bari xamuñu ko waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa defoon na loolu ci Umar ba mu mën a toog moom ci diggante julli ak moroomam mu ni la mu doon def du méditation waaye contemplation la waaw parce que nee na mi ngi janoog jannatil firdaws waaw ma ni ko lu ci jublu mu ni xool ngëneel yi ci yàlla defal jaamam waaw mu jéem a wëlbatiku sant yàlla ci nombre dëngëneel yooyu balaa muy dem parce que dootul amati occasion waaw waaw kon yonent bi yar na leen waaw kon bi yar na leen waaw na leen ba ci Abdourahman ibnu Awf ba ci Abdourahman ibnu Awf le grand commerçant waaw waaw mën nañu ko tuddee sax ci tempsam le milliardaire waaw moo tax moo tax defe naa benn euh, commandant Mansour sax lay wax mi ngi fi mu si ñëw ñuy waxtaan mu ni dafa liir benn euh, livre gis ñu ni Abdourahman ibnu Awf mooy mujj dugg aljana ëllëg ndax àllam ak nii ma ni ka boo demee ni leen Abdourahman ibnu Awf nee na demewul noonu waaw <laughs> ñu reetaan si ndeysaan <laughs> pour wax la ni livre yi lu ne la nii bind waaw lu ne la nii bind mu ni daf ko liir rek gis nu ni Abdourahman ibnu Awf mooy mooy mujj dugg aljana ëllëg ndax ndax buñ koy xisaab alal ji dafa bare alal ji mu amoon waaw ba tax na mooy mujj dugg ma ni ka ah, boo demee ni leen daal Abdourahman Ibnu Awf nee na demewul noonu wax leen loolu <laughs> ndeysaan waaw ndax dafa bare woon alal dafa bare woon boutique bare magasin ba kenn xamul nu mu toll waaw mujjoon na dem ba boutique yi bu koy joxe mu ciy teg kooku dana xam patron moom mais du xam ki moom boutique bi waaw waaw du xam sax ku moom boutique bi waaw nga dem ba am boutique yoo xam ni yow dangay ñëw woo nit teg ko ci loxoom kooku tekk ci loxo keneen kooku tekk ci loxo keneen ba yow dootuñu la xàmmit waaw te yër yu woyof la daan sol waaw waaw dafa am bis mu dox ba ci benn boutique mu ñëw xool magasin bi gis ni magasin bi ay serviette lay jaay serviette yu jafe sax mu taxaw ci comptoir bi lu yàgg di xool serviette yi kiy jaay jugul sax ndax yëre bi mu solo tax xam naa boutique bi bu doon boutique yi fii dañ naan boutique VIP yi kese la am na yére yoo xam boo ko fa duggee kenn du jug sax ba di wax ak yow waaw mu taxaw ba yàgg mu ni xanaa kiy jaay nekku fi waa ji yëre ni ko looy wut mu ni ko serviette yi laa doon laaj ñaata lay jar dama ci bëggoon benn waa ji ni ko serviette yi mënoo amoo xaalisam amoo njëgam mënoo ko jënd mu ni ko yow te nga ma wax prix beeg lu muy jar rek waa ji ni ko serviette yi mënoo ko jënd waaw xamewu ko waaw mu ni ko ku la fi teg waa ji ni ko sa yoon nekk ko ci waaye mën naa ni sama patron diw moo ma fi teg pour may jaay mu ni ko ndax mënoon naa ko gis mu ni ko déedéet kooku nit ñi dañ ko ñaan xaalis ba sonn léegi day làkku sax mu ni ko ñaanuma ko ndekete patron baa ngi ci biir di ko dégg patron bi coow bi yàgg jékki saa mu jékki saa daal di siggi rek daal di ne ah Abdourahman waa ji ngi taxaw di xoole waaw mu ni ko xamuloo kii mu ni ko déedéet mu ni ko kii mooy Abdourahman manœuvre bi dafa jaaxle mu ngi taxaw mu ni ko moom moom magasin mu xoolaat ko ci kaw ba ci suuf parce que yëre bi mu sol gëmul woon ni ko moom magasin bi mën na sol yëre bu mel Abdourahman ci lal ni leen defal leen ma inventaire bi fi mu taxaw ñu ni ko lan mu ni def leen inventaire bi ma fay leen li ngeen fi amee fay patron bi li mu fi amee ni ko fayal sa manœuvre mu fay mu ni demal wax yonent bi ni ko boutique bi def naa ko ci islaam continuer dem yoon waaw ñi la ko joxee bi ñu ko laajee mu ne alal su demee ba beew di ci dugg borom na ci gaaw a débarrassé wu balaa yàlla di ko ko toppee ëllëg waaw ñoom seen philosophie benn la waaw nii la ko waxee mu ne alal bu demee ba beew di ci dugg na ci boroom raxasu ba mu set balaa yàlla di ko ko toppee ëllëg waaw mu ni moo tax mu raxasu ci def na ko ci islam waaw pour wax la lu nekk participer nañu ko ci islam waaw lu nekk participer nañu ko ci islam te loolu yëpp li ko jur ci ñoom mooy message bi yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam indi woon ci ñoom waaw message bi yonent bi indi woon ci ñoom waaw gis nga Ababacar demoon na ba nit ñi ni bu ñu dajee bu ñu laajee yonent bi tooñ leen suñu waxee yonent bi ni jullit yi wax leen ci suuf bu mu jëm kaw nag ni leen waaye wax leen ci suuf ni leen bu ñu leen laajee ku gën a nay ci alalam da ngeen ni Ababacar jullit yi di ko waxantu ba benn bis rek mu jaaxal benn jullit mu ni Ababacar li mu def ci islaam yépp ak nu mu toll mu ni nan la nu mënee wax ni Ababacar dafa nay ci àll yonent bi woo leen ñu ñëw mun leen kàddu hikma la ana alalam ñu ni def na lépp ci islaam mu ni yóbbu na lépp aljana waaw yóbbu na lépp barzak fekk boobu li mu leen bëggoon jàngal daf leen bëggoon wax seen compte bancaire yi ngeen di dajale ak alal ji di wàññi di xool defe ni yéen a ko moom bu ngeen di génn àdduna nu koy seddoo li ngeen joxe ci yoonu yàlla loolu ngeen moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko seen njaboot moo ko waaw loolu la leen bëggoon jàngal ñu am ci yaqin boo xam ni mujj na kenn ku nekk di xool lan la mën a participer ci diine mu participer ci diine waaw te loolu yar la loolu yar la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sens bi xeetam am mooy yàlla may na leen ñoom ñu mënoon participer ci mission yonent bi ñu àndoon ak moom ñu mën ci participer yeneen yonent yu bare seen xeet amuñu woon sens boobu waaw ku ci mel ni yeneen yàlla Nuux alayhi salaam kenn participé wul ci mission te mission am cinquante ans waaw alfa sanatin ilaa xamsina waaw te kenn participé wu ci waaw ku ci mel ni yeneen yàlla Moussa bi xeet bi di jaar géej ga moom la ñu ñaan ni ah jaaxle nañu nag dawloo nga nu tey ba agsi nañu foo xam ni mënatuñu dellu gannaaw mu ni inna allaha maana daal di xar géej ga bi ñu demee itam ba jaaxle ci naan moo dóorati yatam ba ca doj ba yatam ba ca doj ba doj ba génneeti ndox ma xeet bu nekk naanati waaw waaw moo tax yàlla mayoon ko pouvoir ca yat ba ba léegi yatam ba ma opérationnel waaw ba léegi yatam ba moom la xutbu zamaan yi doon awante di ko gàddu waaw moom lañ doon awante yatu yeneen yàlla Muusaa la xamuloo waaw yatu yeneen yàlla Muusaa la moom la ñu stocké ca xadaratul ilaahiya wéer ko ca wetu fëtëy ba xutbu bu nu name boo ñëwee moom ngay gàddu booy xutbu waaw yatu mu saal waaw te indi na ko fii ci shahada yore ko fi yatam la ñu bari laajuñu yat boobu fu mu jógee yatam la moom la ñu teg ca wetu fëtëy ba xutbu buy tenir discours guddi aljuma nga taxaw wax diskuur ba su jeexee nga dal di tegaat yat bi wéer ko daal di dem toog waaw waaw ñi koy dugal ci shahada ñu néew lañ. ñi koy dugal ci wàllu shahada ñu néew lañu moom moom la bu yi di defe discours waaw waaw discours yëpp moom lañ koy defe waaw yëpp moom lañ koy defe su ko defee nag discours yooyu mooy discours yi nga xam ni rox lay dundal waaw discours yooyu mooy discours yi nga xam ni rox lay dundal waaw waaw lay dundal waaw nitu yàlla yëpp dañuy dañuy fexe seen rox raxasu raxasu rax ba leer nañ waaw waaw waaye nag ña fa nekk ñu bari kenn miinu leen kenn miinul seen kanam sax waaw waaw kenn miinu leen ñu bari nekk ca xadatu ilaahi ba pour nga gis fii seen kanam ci réew mi xàmme leen lu néew la waaw lu néew loolu nag moo tax ma ni parfois manque d'information spirituelle dafay am kenn ku nekk dootoo xam loo war a jox sa njaboot ndax boo boo siégé wul munoo xam looy jox sa njaboot boo siégé wul munoo xam looy jox sa njaboot ndax semaine bu nekk dana am li nga xam ne mooy jëriñ te loolu ci rox lay dugg du dugg rek ci ay nopp waaw waaye faw nga dem jëli ko waaw ñi koy jëli nag bareetuñu waaw ñi koy jëli bareetuñu dossier bi bés bu nee ñu wax la ni eh, wàññi nañ ci nàngam ak nàngam bés bu ne ñu wax la ko waaw bés bu ne ñu wax la ko waaw xanaa biñ ci wax naan ak Cheikh Tijani sax dafa ne xëy na bu ñu demee bay changer diggante xay ba xays waaw changer voile bi rocc ko mu ni xëy na dana bari ñu duggaat waaye bu ko waxee rek xam na ni vide am na waaw bu ko waxee rek vide am na waaw te boobu formil boobu formule allahu nurullahi la ilaha illa allahu la waaw formule boobu la ca diwaanul xiraa wax nañ moo tax bi ñu demee mystique yi di calculer rek mystique yi di calculer rek ndeysaan ku nekk jox ma benn chiffre <laughs> wallaay ndeysaan ku nekk jox nu benn chiffre ci li mu xalaat waaw ci onze mille onze mille bi ma ni leen onze mille u xaybu du onze mille u shahada waaw xaybu dañu am seen calcul ñoom waaw xaybu dañu am seen calcul waaw su ko defee nag mystique yi ñoom ñëpp di ko xaar waaw parce que nag voile ba bu dañee mënatoo am excuse ni monde xaybu dafa sore ci yow waaw mënatoo am excuse waaw am excuse waaw ni monde xaybu dafa sore ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fàttaliku bi ma koy jàngal sooratul xaj la ma indil waaw yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum inna zalzalata shaati sayun azim moom la ma jàngal ma ci ma may may xalaat yowmal xiyaam euh, ni yàlla di waxeek bis boobu nañu ko ragal ndax bis bu bari yëngu-yëngoo ngi di ñëw ñu ni ab diir mu ni ma gis nga diggante barzak ak fii mi ngi mel ni benn grillage waaw benn gris gris boo xam ne nii la mel sa digganteeg néew yi noonu la mel waaw waxul voile de gris la wax xam nga gris boo xoolee dangay gis à travers waaw mu ni mi ngi mel ni gris ni ñu jege fii ak ni ñu jege fii keroog la ñu ànd di dox di dox di dox ba yàgg ma gis ay nit ñu parqué leen ci benn place ñu ngi jël lu mel ni zinc zinc yi ñu am fii def ko seen diggante ma ni ko ñii lu tax mënuñu daw rëcc dem dem dem àdduna comme dañ leen ne mu ni ma mënunu rëcc parce que ci biir bàmmeel la ñu jóge waaw ma imaginer ni mënunu kon toppaat tunnel bi di dem ba seen bàmmeel di sullee ko waat ndax dañ leen condamné waaw mu dem ba ci benn teen génn ci dugub moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ci mbuus dugub comme dugub suuna bii ñu xam bu ñu sokkul bi moom la génn ci mbuus ci benn teen ca barsa waaw mbuusu dugub googu la ma jox ni ma boo demee nga yóbbaale ko waaw dugub googu ba léegi mi ngeeg man dugub googu ba léegi mi ngi man waaye du pour euh, du pour wàllu wàllu euh, togg walla leneen pour karaama la waaw pour karaama la ma ni ah ndeke mag ñi kay lii tax ñu daan euh, foo leen fekk rek ñu yor ko ndax dégg naa ko ci histoire mag ñu bare ci côté spirituel nga dem ñu ni amoon nañu tax ñu dugub seen wet waaw ndax garab gu barkeel la waaw waaw garab gu barkeel la waaw mu jox ma ko te mi ngi ko jële ci benn teen ca barzak moom yonent bi moo ko gédde soquñu ko muy dugub bii ñuy tuddee xaw ma dugub suuna la xaw mi ngi ci mbuus waaw mu ni demal denc ko waaw ma denc ko xool doom yi ci ne xaw ma doom yi sax mënuma ko wañ mënuma ko wàññi ndax Cheikh Tijani laa ko doon laaj mu ni ma daal ba sa mission di jeex du jeex waaw mu ni ma ba sa mission di jeex du jeex waaw nii la ma ko waxee woon waaw waaw te loolu te loolu te loolu kenn du ko tuddee ngànnaay dañ koy tuddee rek luy dalal xel kenn du ko ko tuddee dañ koy tuddee luy dalal xel waaw waaye ma dem ba xam ni aussi tamit eh, ni seen musée la rek ñoom lépp lañ denc ndax dugub yooyu dugub gi yenent yàlla Suleymaan doon def expérience mook melentaan ba pepp dugub googu mi ngi ci biir ma ni lii tax ñu denc ko ci kay waaw xam nga yenent moo ko defoon ak melentaan mooy bi mu laajee melentaan ba ni ko yéen ñaata ngeen di dunde mellentaan ba ni ko benn pepp dugub mën na am ak ñun at mu dugal ko ci bouteille ba def expérience ba at ba jot mu génn fekk mellentaan ba cof ci wet ba rek lekkul yëpp mu laaj ko melentaan bi ni ko dëgg la dëgg la mën nañ leen jàppe ni yonent ngeen waaye nit ngeen ba léegi da ngeen di fàtte te boo ma fi fàtte woon du ma jég wata ma doon cof ci côté bi waaw mu yéemu ci moom ñu jël dugub googu enregistré ko ca xayb waaw ndax xayb yun fa denc bare na ba ci jaasi bi Alioune daan yore boo demee xay bu mi ngi ñu exposé waaw ma nga ñu denc waaw jaasi bi Alioune daan yore nga xam ni kon jàmbaar la waaw waaye la gën a yéeme itam moom mooy yére imaam Hussein waaw waaw yére bi imaam Hussein soloon ba ñu koy jam xeejee ca Karbala waaw yére ba ma nga ñu denc moom it waaw yére ba ma nga ñu denc moo tax procès yi dëgg procès yi dëgg ëllëg la du tey waaw procès yi dëgg ëllëg la du tey waaw waaw ndax bi ñu koy visité Cheikh Tidiane dafa ne ma xam nga yëre Ousseynou lu tax nu denc ga fi ma ni ko déedéet mu ni ma bu yowmal xiyaam taxawee ba responsable yi ko jamoon taxaw mu ni ma gis nga Fatima mii doomu yonent bi li muy baax baax mooy dem fële jëli yére bi yóbbu ko ba ci kanamu yàlla ni ko ñii ñoo rayoon sama doom waaw su boobaa mu ni seen condamnation moom dootul doon sax lu ñuy werante Cheikh Tijane ko mu ni te xoola Fatima nu mu baaxe waaye xam nga lu muy xaar mu ni yowmal xiyaam yére bii lay jël yóbbu ko ba ci kanamu yàlla ni ko ñii ñoo rayoon imaam Hussein sama doom waaw waaw léegi nag nanu laaj léegi ban bàkkaar la imaam Hussein defoon ba nu jamate ko ni am ma ni xanaa bàkkaaru demoon bëgg leen jiite dimbali leen waaw ñu piégé la waaw demoon bëgg leen dimbali ñu piégé la waaw waaw te imaam Hussein it ku baax la ndeysaan waaw moom ku baax la tabaarakallaahu waaw bi ko fi xalifa Masamba defalee waxtaan bu yaatu bu rëy sax waaw ba ñu bari xam ko ndax ñoom dañu apprécier kuy nettali seen histoire waaw boobu la ñëwoon ni ma bu leen ko waxati Masamba Mouhamad la tudd waaw tuddul Masamba <laughs> dama ko doon tooñ ne naan xalifa Mouhamadul Kulbali ndeysaan waaw mu ni Mouhamad la tudd waaw ma gëstu ba yàgg ma ne ah waaw turu Masamba turu aada la moo tax ndeysaan ma ni moo tax xam naa mu wax Mouhamad. waaw ñoom ñoom du ñu delloo dara ci aada waaw gis nga ñoom ci lépp ci xaqiiqa lañ koy delloo waaw waaw ñoom du ñu delloo dara ci aada ñoom lépp ci xaqiiqa lañ koy delloo waaw parce que yëg nañ ni xaqiiqa rek mooy dëgg te ñoom loolu la ñu yëg waaw moom imaam Hussein ndeysaan waaw waaye gis nga moom it nañ ko def waaw nga moom it nañ ko def ca Karbala waaw te dafa demoon kat pour jiite ji leen de waaw dafa demoon pour jiite ji leen yonent bi sax feeñu na ko ni ko boo demee dañ lay exécuter waaye dafa continuer ndax ñoom li nekkoon ci ñoom léegi dafa nekkatul ci lu ñu bare mooy ñoom dañu amoon jomu diine am jomu diine lu am solo waaw waaw mooy gis nga la nga nekk bay boo na la nit ñi bàyyi bay boo na la nit ñi xas bay boo na la nit ñi wax lu dul noonu nay dëgg rek waaw buy dëgg sax ci waaw li bon kay mooy nekk ci caaxaan nekkoo ci dëgg kooku moom ñaari nit sax buñ la xëccee nga daan waaw waaye boo nekkee ci dëgg nga xam ni lii dëgg la ci yàqin loolu la nit ña wax enduré ko te continuer sa yoon waaw parce que nit ña lay wax nag bu yàggee ñooy dem ba yàgg ñu ni ci dëgg la ne waaw waaw waaw ñooy dem finalement ba yàgg reconnaître sa nekk ci dëgg waaw te ñoom loolu la leen yonent bi jàngaloon waaw yonent bi daf leen fonkoon waaw daf leen fonkoon ndeysaan waaw daf leen fonkoon moom moom ak Hassan waaw imaamu Ousseyni ak imaamu Hassan waaw yonent bi fonk leen ndax ay sëtam lañu ñu ñu jaral ko lu ne seen bàyyi Alioune nit fonk leen ndeysaan waaw Alioune fonk leen loolu tabaarakallaahu waaw waaw fu mu fu mu tourné rek xelam nekk ci ñoom waaw yéeféer yi dañ daan dem ba di ko tooñe waaw yéeféer yi dañ daan dem ba bu ñu rombee ni Alioune Alioune du leen xool waaw Alioune ku amoon caractère la du leen xool yéeféer yi toog ba yàgg ñu ni Abu Hassan Alioune reetaan ñu ni déggal boo nee Abu Hassan rek mu reetaan doomam ji rek lu bëgg dañ ko ko daan tooñe waaw dañ ko ko daan tooñe dañuy dem ba yàgg wax ko Alioune du leen wuyu ñu jékki saa ñu ne Abu Hassan mu xool leen ñu ni xoola doom yi rek la bëgg waaw waaw ñu ni doom yi rek la bëgg ndax Alioune ku amoon caractère la waaw ndax caractère diine la amoon waaw caractère diine la amoon moom li mu gëmoon mooy message bi nga xam ni moom la yonent bi jëlee xay bu ñëw di leen ko jàngal xamoon na ni warul nekk mukk message bu ñu bàyyiwul xel waaw xamoon na ni message bi warul nekk mukk message bu ñu bàyyiwul woon xel waaw moo tax nag mu ni leen message boobu mu ni leen message boobu faw ñu jàlle ko ci yéen waaw mu ni faw ñu jàlle ko ci yéen waaw ndax jamono noonu lay doxee waaw organisation spirituelle it noonu lay doxe waaw noonu lay doxe jamono yee maa ngi koy wax waa Medina Cheikh ma ni leen dañu xëy rek ñu jël xadaratul ilahiya yóbbu ko ca siège yonent bi fi fi ñu ko daan defee nu changé ko waaw nu changé ko waaw fekk balaa nu koy changé dama ko gént ma koy nettali ñoom daaw dañi ñu dem ñu changé ko ba ma ñëwee daaw dañi ma xanaa gént gi la woon waaw ndax dama gént benn politicien ñëw fii ñëw fii ci buntu Medina Cheikh mi ngi fekk maa ngi toog di wértu politicien la boo xam ne sax xam naa ni nekkul ci réew mi xaw na fi géej mu ñëw daal di may nuyu bi ma nuyoo fekk maa ngi toog di wér ma ni ko nii comme wan ko ni ko damay àggale sama kurus ndax neexu ñëwam neexuma woon bi ma wér dee ba yàgg ba ma terminé ma rus ne ah comme ñëw na kat wax dëgg yàlla nit moom waroo rek noppi continuer sa course naa ko wuyu bi ma ko nuyantee mu ne ma waaw dama fi ñëwoon ni ay tànk ndax daal léegi yàlla dafa ma dimbali ba dan ba baal nañ ma li ma defoon yëpp dama bokkaat nii la ma ko waxee ni ma léegi baal nañ ma yi ma defoon yëpp dama bokkaat <laughs> léegi nag comme dama bokkaat ma ñëw nii nga ñaanal ma daal ndax léegi bokk naa ma ni ko xam nga lu ma tal jamono yi mu ni ma déedéet ma ni ko gis nga siège bale yonent bi yóbbu juróom-benneelu asamaan changé ko muy xadratu ilaahi falaa dem nii waaw naa leneen lu dul toog di leen ñaanal waaw ku di ma xool ma jóg dugg ci biir ci gént gi ma yeew waaw nettali ko ñoom daaw nii di leen ko wax ma dem rek ñu joxe ordre cheikh ni yonent bi dafa jël xadratu ilaahi yóbbu ko ca place waaw ba gàmmu di passé mu ni foofu lañ koy def ñu dem kel tuuti nit njëw waaw tuuti nit njëw ñu laajte waaw salle bi lu tax feesul ñu ni ñu bari mënuñu fi accéder ñu ni ñu bare seen lumière mayu leen ñu accéder fi te kat ñooñu daan nañu siéger ca xadartu ilaahi waaye dañuy négandiku fu mu ne ba guddi gi paase waaw waaw ndax mënu fi ko yonent bi yóbbu mënuñu mënuñu àgg foofu ñu waaw pour wax la ni mbir mi ay organisation la boo xamul organisation nag yaa fiy toog maay diw ak maa demoon béréb nangam maa demoon keneen ma ne ah doo ko wax sama kanam de ndax dama lay laaj discours bi discours bi passé lu ñu fa wax waaw ndax loolooy réalité bi waaw wax nañ fa nee na ñu nee nañu lu ñu fa wax ndax dañ koy tëral waaw waaw dañ koy tëral te Cheikh Tijani Chérif amu ci santiment waaw waaw moom élévation spirituelle amu ci sentiment waaw waaw moom lu mod rek waaw bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa moom it amu ci sentiment waaw waaw moom amu ci sentiment waaw su ko defee ñoom ñaar ñëpp seen wàll noonu la mel waaw ñoom ñaar ñëpp seen wàll noon la mel waaw te seen wàll kenn xamul dëgg-dëgg lan la waaw te ñun nag teraanga googu yàlla dimbali nañu ba ñun ñu am ko ci moom waaw ñun ñu am ko ci moom te cheikh nag lu mu la wax dina ko def waaw cheikh Tijani Chérif lu mu la wax dina ko def gis nga keroog bi ñu tëj burdu bi fii fekk boobu ma annoncé woon daayratul imaan yëpp wax leen nañu bàyyi ba ñu ñëw ñu tëje fii burdu bi ñu jàng ndax le 26 la ñu commencé woon ñu àgg dixième jour bi ñu julli gee fekk boobu ñuy laaj nañ ma kañ lañ koy tëj ma ni suba bu daayira yi ñëwee ñu julli gee mu ni ma tëjal ma burdu bi tey waaw ni ma tey mooy dixième jour moom Cheikh ñu tëj burdu bi ba noppi ma dem ca moom deux heures du matin bi ma paree sama course ma ni ko léegi tëj nañu burdu bi kon léegi àjjuma ji nag nu ñuy def ak moom ak samedi bi mu ni ma ah màggal guddi yonent bi daal moom comme moom la ñuy def nun daanu def nan daan def waaw ma ni ko waaye bëggu bëgguma ci yam nag kon ma ni ko léegi ñun yonent bi daf ñu daan gane si ci guddeem te léegi ñaari guddi la ñu am kon na ñëw ñaari guddi yëpp mu ni ma dinaa la mu ñëw ñaari guddi yëpp waaw ma dinaa def mu ñëw ñaari guddi yëpp waaw démb ma toog di wér di wér du ba yàgg deux heures jot rek ma dégg ngelaw la tàkk may jóg mu ni ma yaa ni woon lu ñëw ñaari guddi fi ma ne ca laa génn ndeysaan <laughs> ca laa génn ndeysaan dem ci ñoom xalifa Cheikh Mouhamed Seck mii fekk leen ca seen baas ba nu naan ma sang bi heure bii man ma ree rek ni waaw baax na na heure bii moom fekk na gan yi ñëw xaal bi nu àndal ëpp na waaw ñëw xaal bi nu àndal ëpp pour wax la ni Cheikh lu mu la wax dina ko def waaw yaadul xam lan la nag waaw waaw yaadul xam lan la ndax ñoom seen xaal lu ne lay àndal waaw ndax dañuy romb waaw dañuy romb tooguñu waaw boobu tooguñu dañuy romb wax na ko rek foog yonent bi romb ak délégation waaw waaw te romb bi rek amoon solo waaw li ci des mooy seen toogaay waaw kon ñun xam nañu organisation bi ñu incarné ñoom waaw waaye loolu yëpp nag li nu ko may mooy wóolu bi nu wóolu Cheikh Tijani Chérif te xam ko waaw waaw ndax boo ko xamee ci yaqin ngay dund waaw waaw boo ko xamee ci yaqin ngay dund waaw te yaqin boobu wax naa leen ni yonent bi moom la doon waxtaan ak Ubay ibnu Kaabin ba wax ka mu ko wax ci yaqin mu jooy ca lam ca jooy waaw te yooyu di ay teraanga yoo xam ne ci domaine spirituel kenn xamul na mu toll waaw moo tax gis nga aadam salaam bi ko yàlla dénkee mission bi mu ko dénk muy mission universelle boo xam ni dafa concerné waale jaww ji waaw mission am dafa concerné waale woon jaww ji gis nga bi ko ko yàlla dénkee ni ko del àttewoo ci garabu siddéem yi nga di ko xool nga xam ni da ngay am connexion ak moom ndax garabu siddeem aussi lu jar di xel waaw wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siniin waaw wa haazal ay organisation la yoo xam ni borom bi daf ci tànn la muy la mu la mu la mu bëgg tànn pour mu seede ko muy wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siniin wa haazal baladil amin waaw dafa nag tuuri siniin moom moo ci gën a siiw waaw ndax yeneen yàlla Moussa ni mu fa daan taxawe di communiquer ak borom waaye gis nga garab gi ñoo wax siddéem aussi garab la gu yéeme ci organisation mission Adam alayhi salaam waaye gis nga garab gi ñoo wax olivier aussi garab gu yéeme la ci organisation aljan waaye gis nga dëkk boobu yàlla protégé aussi dëkk bu yéeme la moo tax dajjaal mënu fa dugg waaw masiix dajjaal moo tax ngay dégg ñu wax la mënul dugg màkk mënul dugg Médine waaw mu ni wa hazal baladil amin c'est la cité protégée waaw c'est la cité protégée comme ni yàlla di créer ay terre sainte ni yàlla di créer ay terre sacrée noonu lay créer ay cité protégée waaw yàlla noonu lay def waaw léegi nag cité protégée bi ndax daa ci tombe wala doo ci tombe loolu day dellu ci organisation waaw day dellu ci organisation waaye boo amee sens tombe ci cité yi nga xam ni moom la ñuy tudde cité protégée mooy béréb yi nga xam ni leeru nitu yàlla leeru nitu yàlla même buñ ko dencee ci biir suuf leer gi du fay day continuer waaw leer gi du fay day continuer waaw même bu ñu ko dencee ci biir suuf waaw yooyu ay cité protégée lañ ko tudde waaw waaye gis nga aadam aleyhi salaam yàlla jox ko mission bi muy superviser univers bi ba fàtte superviser njabootam waaw ba fàtte superviser njabootam parce que njabootam ñëw na ku ci nekk jox na la consigne waaw ku ci ne jox na la consigne nee na borom bi neena na nanu def seex bu góor bii seex bu jigéen ba mu juddoo ndool du denc kooku na denc seex bi nga xam ni moo topp ca ëmb bu ñaareel ba wala ëmb bu jiitu ba waaye gis nga ñu ànd ci organisation boobu di dem di dem ba ci xaabil ak xaabil xeex ba daal di takk waaw ndax xaabil nee na seex bi ñu ma bi ma juddaaleel moo dàq kee kee rafetu du ma jël kay na jël ba basam ma jël sama bës te atte bi demewul noonu ñu nekk ca nekk ca nekk ca ba mujj rayante waaw ba mujj rayante waaw xoola doomu aadam alayhi salaam di yonant mu commettre un crime odieux waaw ñu mujj rayante waaw mu lam doon superviser ca la ko xame ba mu gisee siddéem ya commencé am ay dëkk mu gis dex ya commencé bu nekkoon dex yu neex mu commencé wex mu gis temps bi nekk temps bu poussière ci la xam ni problème am na waaw waaye gis nga bi mu demandé ñu delloo ko ci ci famille waaw waaye yàqul mission waaw yàqul mission parce que yàlla fexe na ba yonent yàlla siis di doomam nekk yonent waaw yàqul mission mais gis nga ñoom loolu yëpp tax na yowmal xiyaam yowmal xiyaam ñooñu ñooñu loolu tax na bu nu taxawee kenn du ci ñeme kenn du ci ñeme ci ñoom taxaw di wax da ngay jéem a ràmm sa wala da ngay wax li ndax da bañ ñu delloo si la ci sa responsabilité bi nga fayir waaw yowmal xiyaam ñoom ñëpp dañuy taxaw waaw waaye gis nga kun ci ni kaay ràmmu jaam yi ndax sonn na nga xalaat xalaat ba yàgg ni daal seet leen keneen waaw bu ci yenente yàlla Ibrahim ba ci yenent yàlla ibrahim alayhi salaam waaw seetal lu mu daj lépp ci dundam yowmal xiyaam dinoon ko woo ko ibrahim mu ni làbbay ko ñu ni ko comme yow maam nga woon ci muhammad li nu bëggoon mooy nga ñëw léegi nga jéem a ràmm jaam yi ndax sonn nañ waaw mu xalaat ba yàgg mu ni leen fàttaliku naa ñetti wax yi ma waxoon te du dëgg bëgguma dem di wax ak yàlla mu fàttali ma loolu ci bisu tey bi ndax bisu tay bi xalaatuma ci mukk sax di ci am gàcc waaw Ibrahim moo koy wax waaw te xam nga ñetti wax yi mu yi mu wax ni moom la jàpp ni mës na ko wax te du dëgg mooy bi ñu ko waxee ni ko gis nga Ibrahim ndekete yow yaa bàyyi ba ñu dem nga jël yàlla yu gor yépp ba noppi nag jël yàlla bu mag bi sémmiñ bi nga wékk ko ci boppam mooy seen xërëm yi daan jàpp mu ni leen déedéet du man ñu ni ko yow mii la nañ la woo nga seede ni yow la mu ni du man mooy ñaar ya benn ba bu ñu ko ne foog nga expliquer nu mu demee mu ni gis nga yéen da ngeen muusul gis nga yàlla bu mag bii xam naa ni naka jekk da ngeen dem tool ya rek mu xuloog ñi ci des si leen gor ñoom ñëpp wan leen ni moo fi mu wekkoo ko ci ñu ni yàlla yi doonu ma mën a déplacer di gor mu ni ba pare ngeen mu ni ba pare ngeen di leen gëm yàlla bu mënul déplacer ngeen di ko gëm ñu mujj lu nekk ñu waajal ko ko ndax la mu wax te wax na dëgg wax na dëgg te seetal jamonoom Namrus Namrus fexe na lu ne waaw Namrus fexe na lu ne lu ne fexe na ko waaw pour rek Ibrahim bokk ci ñi nga xam ni daanu gëm xiram waaw waaw ca door ba yaayam jëm ko convaincre papaam jéem ko convaincre Ibrahima bëggal ñu jàmm kii kat buur la boo xam ni fii nar na nu rey nangam nangam mu ni man daal yàlla rek waaw xaw ma daf leen di rey wala du leen rey yàlla rek. ñu wax wax wax Namrus comme buur bu beew la woon bu waxee rek mu ni euh, dina dellu si dafay xale rek waaw dafay xale rek dangeen koy yóbbu muy jaay xërëm yi waaw Ibrahima jaay loolu nañ ko xërëm ñu ñu ni ko léegi da ngeen koy boole ci ñiy lem xërëm yi di yóbbu marché di jaay waaw waaye ñetti fan la jaay marché ba yëpp mer xeexoo xuloo am mujj ñu ni ba mu jaay ndax bu ñëwee teg xërëm yi dafa naan kan moo bëgg yàlla boo xam ni du dégg du gis. mënalu la dara soo ko dóoree du fay mujj jëpp mujj ku bëgg jënd jëndatu waaw ndax noonu lay jaay waaw day ñëw rek ni kaay leen jënd yàlla boo xam ni du dégg du gis mënalu la dara boo ko dóoroon nii fu mu ne du fay mujj ña doon jënd mer mer mer ba kenn jëndatul xërëm mi waaw ñu fexeel ko waaw waaye gis nga yow mal xiyam ñu wax ko ni ko yow kat ñëwal nga ràmmu jaam yi waaw ñu ni ko ñëwal nga ràmmu jaam yi parce que sonn nañu mu ni wax naa ñetti wax yoo xam ni daanaka yooyu amewul woon noonu te bëgguma yàlla indi wax yooyu ci bisi tey waaw daal di tourner waaw waaw ñu ñëw ci isaa ibnu mariam wax isaa ibnu mariam ni ko yow kaay dimbali ñu dimbali jaam yi ndax sonn nañu isaa ni man li ma lin ma waxal fii waaw ñii dem seen église ni may doomu yàlla ma ñëw ci aaxiru zaman weddi leen waaye bi ma leen di weddi am na ñu ma fekk faatu nañ bu yàgg ñooñu amu woon temps dem ca église weddi la su ma demee yàlla sulliwaat dossier boobu nag waaw ndax tey mu ni lumière yàlla xaalam kenn ñemewu ko waaw lumière yàlla mu ni xaalam kenn ñemewu ko waaw ñu ni nag léegi nanu tourné koon ci benn yaakaar bu ñu desee muy Muhammad waaw ñu ni moom la ñu dese waaw yonent yëpp rejeté waaw ci la dem ci Muhammad ni ko nag yaa fi sës boo yóbboo ñëw ñaan waaw ca la Muhammad dox dox ndeysaan ak tànkam yu tedd ya waaw ba ca siège yu yàlla lumière ba fa mu ne waaw mu daldi bëgg sujjóot yàlla ni ko Muhammad looy waajal mu ni ko sujjóot mu ni ko loo ci jublu mu ni ko pour ñaan la yàlla ni ko bul sujjóot mukk dangay ngay siggi di ñaan ñu di la may ngay laaj ñu di la jox waaw mu ni ko sama xeet rek laa bëgg nga texeel leen dugal leen aljana yàlla ni ko damay dugal tànk waxoo arrêteel du ma arrêté damay di dugal aljana rek waaw mu ni ko duma wax mukk arrêteel te jeexuñu waaw waaw xeetam la wax waaw xeetam la wax ñi bokk ci xeetam la wax waaw waaw moo tax ñu bari nag boo waxee rek ñu ne ëllëg xeetu yonent bi àjjana lu ma ni waaw waroon nga gis yonent bi ci xalwa laaj ko ndax ci nga bokk ba pare <laughs> ndax xeet moo koy tànnal boppam waaw mu ne ummati boobu moo koy tànnal boppam waaw waaw lu am solo la waaw waaye fii Sénégal xamuñu lool waaw fii Sénégal xamuñu lool fii lu nu xam dangay dégg nit ki ni man daal bu ma fi jógee su ma demee sama sëriñ laay làcce fu mu dëkk ca Barzak ñu ni ma fii la dëkk ma daal di ñëw daal di placé wu <laughs> mu ni kon yomb na di <laughs> mu ni kon yomb na di waaw waaw waaw te lu jar nag di def attention la lu jar di def attention la waaw waaw waaw lii ma di leen wax bi ma ko bi ma ko bi ma ko gisee amul sax vingt jours gàmmu gi agsi waaw te ki ma gis mbooloo mu bare toppoon nañ ko waaw fii laa wax ñu mbooloo mu bare toppoon nañ ko waaw nekk ci gannaawam guddeeg bëccëg dàngam mu wax ji fii ak feneen fa gis nga fa mu tëdd ba ma demee man xàmmewuma ko waaw bi ma fa demee xàmmewuma ko waaw xam nga lu ma leen jëkk laaj kii ana kanamam li ma leen jëkk laaj dama ni leen kii ana kanamam waaw ñu ni ma kanamam dindi nan ko doon ko changé beneen kanam lan ko jox ndax ñun ku ñuy bàyyeeg sa kanam mooy ku respecté julli nii lañ ma ko waxee waaw loolu laa njëkk laaj waaw dama agsi ma ni kii ana kanamam ndax man xàmmewuma ndax dindi ma moom la ma gis ko fi ñu ko tëral ma ñëw ma ni kii ana kanamam ñu ni ma ñun kii nii bàyyee kanamam mooy ki respecté julli waaw loolu lan ma wax waaw waaw pour wax la ni gis nga nit ñi fii gisuñu li xew barzak ñi ngi fii di jóg ak di daanu rek waaw di jóg ak di daanu rek parce que am na ñoo xam ni li nu defe ni mooy génn àdduna léegi moo tee ñu dem dëkk fii seen sëriñ dëkk ca barzak commencé noppal waaw waaw te foofu de ay ay ay ay papier lumière yu wóor moo lay jàllale papier lumière yu wóor moo lay jàppale boo toppul seen consigne ñu sant la defoo ñu tere la bàyyiwoo foo jëmee ci seen côté duñ la sax gis waaw duñ la sax gis te loolu mooy danger bi Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif wax ni moo nekk ci diriger mbooloo te àggoo ci yàlla waaw waaw Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani nee na c'est très dangereux nee na nga jiite même ñaari nit te àggoo ci yàlla waaw parce que sa responsabilité bopp sax. daf lay dooy sëkk rawatina responsabilité keneen waaw waaw ndeysaan maa ngi ko fekk mi ngi tëdd mi ngi sonn sonn sonn ba kenn xamul lu mu doon waaw te heure wasifa fii suba teel laa wasifa ci biir wasifa bi laa ko seeti waaw ndax boobu bëggoon naa xam li xew matul sax vingt jours ba ma fa gëjee waaw waaye ba ma ñëwee li ma laajte ana kanamam waaw ana kanamam ñu ni ma ku ñuy bàyyeeg kanamam mooy ku ku respecté julli moom la ñuy bàyyeeg sa kanam waaw ma xool ñi fii xool ñi fee xam ni ñi fee caaxaan nañu waaw waaw xam ni ñi fee caaxaan nañu waaw pour wax la ni diine moom dafa am ci lu mu tegu waaw diine dafa am ci lu mu tegu moo tax diriger mbooloo te àggoo ci yàlla lu dangereux la waaw waaye nooy xàmmeeti léegi ko àgg ci yàlla parce que mbir mi dañ ko delloo ci aada waaw dañ ko delloo ci aada nit ki da ngay ñëw rek ñëwal sama taalibe maam nga woon léegi eh, kaay nekk taalibe sët bi sama taalibee bàyyi nga woon kaay nekk sama taalibe sol garam bu jeex na toog su ko defee nag nga toog rek yow waaw te nekkoo nekkoo woon ci li maamam santaane lu dangereux waaw waaw lu dangereux la waaw te te te te Cheikh Al dafa daan wax ni gis nga kurus nee na lu nekk mën na la nax ba mu des sa kurus parce que nee na kiy zikr baatinam sell. yàlla dina ko orienté ba wan ko fi muy teg tànk waaw moo tax mag ñi bu njëkk ba daawuñu sax laaj waaw ndax mën nga fekk nit ku baax ci dëkk nga demandé nit ki lu ngeen xam ci moom ndax ñu topp la yàlla dogal nga dajeeg noonam noonam ni nii la mel lii lay wax fii la dëkk nangam nangam wax wax wax ba nga dem sa yoon ndekete romb nga nitu yàlla waaw moo tax mag ñi duñu laaj kenn seen kurus la ñuy laaj waaw ñi daan wut yàlla fu leen mës a fekk seen course la laaj. salaatul fatiha la ñuy jàng naafila la ñuy def jàng seen alquran ñaan yàlla mu orienté leen ci ki leen di teg ci yoonu siraatal mustaqim yàlla wan leen yoon waaw ndax mooy seen ndam waaw loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni istixaara accepté nañ ko waaw istixaara septe nañ ko mais ci kaw nga defe ko ci condition yi nga xam ni moom la diineel islam santaane accepté nañ ko mais ci kaw nga def ko ci condition yi diine islam santaane waaw waaw ci kaw nga def ko ci condition yooyu waaw mais dañ koy accepté waaw li nu accepté wul kay mooy dem ci borom pettaaw bi naan ko seetal ma muy tëneeg di la seetal waaw loolu accepté wuñ ko loolu moom accepté wuñ ko waaw loolu moom accepté wuñ ko mukk waaw waaye li ñu accepté mooy jullit mu am soxla wala mu bëgg am yaqin ci dara mu jàpp ba set julli ñaari ràkkaaw dal di def istixaaram jàng alquran ñaan yàlla mu wan ko waaw yàlla wan ko waaw su boobaa yàlla daf koy orienté ci li nga xam ni mooy gën ci moom waaw boobu lanu soxla boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaw saxaaba yi dañ ko daan def bu ñuy wut soxna defal seen bopp istixaar waaw xool ndax ku baax la ndax ñoom jukko lañ daan xool waaw ñoom jukko lañ daan xool ndax ndax kër jukko bu rafet moo ko yor. waaw leneen lépp yorul kër li yor kër daal mooy jukko ju rafet waaw jukko ju rafet su amee jeex na waaw su amul nag problème dafay daal di am waaw te jukko ju rafet balaa am nit ki amee jukko jukko jukko diine waaw jukko diine islaam waaw te boo amee jukko diine islaam rek di nga xam dëgg-dëgg gëdd gëdd gi nga war a jox sa boroom kër waaye moom itam di nga xam dëgg-dëgg gëdd gi nga xam ni moom moom la la war a jox danga koy xam waaw waaw boo ko xamee rek daal di noppalu. waaw looloo tax nag société bi fi mu ne occidentaux yi yóbbaale nañ leen ba kenn xamatul looy def waaw occidentaux yi rek yóbbaale nañ leen ci seen culture seen civilisation ba kenn xamatul looy def waaw kenn xamatul looy def ndax occidentaux yi waaw lu ne nu jàngal la que nii la bul defee nee waru la yàpp sa droit ndànkam ndànkam waaw a rijaalun xawamuuna ala nisaa i sax nangootuñ ko waaw ni góor moom mooy moom mooy taxaw jigéen loolu sax léegi léegi léegi léegi léegi nangootul ko waaw waaye bu ñu koy wax nag góor gu am fulla tax nuy wax waaw waaw rek nii nii nga génn rek sol xaftaan ni góor mooy taxaw jigéen ni après dem toog déedéet boo moytuwul sax jigéen bi taxawu waaw bu am fulla moo tax nuy wax waaw te bu am fulla mooy luñ la xase-xase mag ñi dañ ko daan wax mag ñi nee na luñ la xase-xase buñ la xas mukk ni yoroo sa kër loolu loolu dañ ko daan wax de nee nañu boroom kër lu ne mën nga ko xase mais bu ko xasee mukk ni moom mii nanguwul joxe dépense loolu bokk ci waaw waaw loolu loolu buñ la ko xasee rek moom dara deseetu la moom waaw nanguwul joxe dépense kooku buñ la ko waxee moom kër ga tas ku joxewul dépense kay nit ki day wuti dépense ci àll ba loolu moom buñ la ko waxee rek kër gi tas na waaw waaw moo tax loolu loolu loolu responsabilité borom kër la soxna siit it éducatrice la war a nekk waaw moom it war a yare waaw war a yare responsabilité am la ci njaboot gi waaw mu war a yare moom tam lu am solo la nit ñi di ko xam waaw ndax yonent bi daf ci daan insisté yonent bi daf ci daan insister waaw yonent bi daf ci daan insisté ci soxna yi mu dencoon yépp ku ci nekk daf ci daan insister waaw wax la sa responsabilité ni la nag boo ko respecté rek moom mu respecté responsabilité ndax moom xoolu la ci mais boromam la ciy xool. su ko defee ñëkk ci déggal déggal ko waaye moom la mu daan muñ kenn du ko muñ waaw moom la mu daan muñ kenn du ko muñ waaw yonent bi li mu daan muñ kenn du ko muñ amul benn boroom kër gu koy muñ fu mu ne waaw am na bis Umar Umar ibnu Xataab Umar mer ak waaxoom waaw ni soxnaam xaaral ma dem léegi wax Muhammad mu wax li mu ciy wax ma xam li ma ci xam boole laak moom waaw ñëw bay waaj dugg kër yonent bi rek dégg doomam bu jigéen. di gëddu yonent bi Umar dafa tiit di di yuuxu yonent bi ci biir kër gi defuma nii nii laay def Umar di waaw di kii lii kay mënul nekk xanaa daal di wàññeeku ndànk ba suba mu woo ko ni ko yow bi may dugg si kon sa baat laa dégg nga yuuxu noonu ci Muhammad mu ni nun noonu lan dëkkee ak moom dañ koy yuuxu mu ni te du leen wax dara mu ni ko moom duñ wax dara day ree rek daal di xam ni ñun xale lañ xamuñu dara Umar ni yonent bee ma doon yedd ndax sama tàngoor bi ma jógee fii di xul di xul ak soxna xam naa yonent bi ma doon jàngal loolu ndax lii mënul doon ne waaw bi mu ñëwee yonent bi ni ko Umar foog nga comprendre leen ndax seen responsabilité xam nañ ko man xam naa sama responsabilité sama diggante ak sama borom jeex na loolu yonent bee ko mënoon loolu kenn mënu ko waaw loolu kenn mënu ko yonent bi moom mënoon na ko loolu moom kenn mënu ko man mii mënuma ko samay xar yi fi toog ñu bari <laughs> mënuñu ko loolu kenn mënu ko waaw loolu nag salaatul fatiha tax waaw boroom salaatul fatiha boo gis lu ci bari day tàng dënn du ko tey sax waaw salaatul fatiha ku koy wér di dëkk léeg-léeg gis ku wér di laa ilaha illa allah ki wér di allah ah bu ko de wóorul parce seen dënn day tàng waaw loolu moom yonent bi ko mënoon waaw waaye ñu bari nag mënuñu ko ndeysaan waaw ñu bari mënuñu ko te gënul sax nag waaw yonent bi moom dafa baax rek laa biir soxnaam yi ko ci ne mu ñaanal la loo def mu ni kii waaye loolu baaxul waaw loolu baaxul mukk waaw ndax boo ci tombeek boroom kër goo xam ni wëli yàlla la boo ko gëddee walla nga yooxu ko sa doom noonu la faw dana la ko def ci sa dund waaw loolu wëli yi dañ ko xam-xamu moo tax dun ko nangu ñoom xamu moo tax dun ko nangu am na wëli yoo xam ni seen garaat àgg na ci buñ la dencee ngay seen soxna bis boo leen yooxoo walla nga wax leen dara yàlla dina la nattoo doom boo xam ni dina la fitnaal te te doo ci mën dara waaw ñoom dañ koy xam waaw ñoom dañ koy xam seen marta ba la moo lay topp xamoo waaw moo tax ñu ni jigéen dafa war a doxal wàllu sagesse waaw lu am solo la ci jigéen waaw nga jéem a sage ci fiñ la yóbbu waaye jéem a dal jéem a fexe ba yu bare nga nga nga nga fexe bàyyi mu jàll waaw xam ni yow mii da ngay liggéey te kuy liggéey nag dafa soxla dafa soxla buy bu bàyyee ba noppi ñu ni ko mbay mi rafet waaw loolu lu am solo la waaw loolu lu am solo la waaw loolu nag lu koy indi mooy booy dugg aussi nga xam ci ki ngay dugg kan la waaw waaw ndax léeg-léeg nga gis ku bëgg jàmm bëgg waaye fekk na ka mu dugg baari démb si waaw waaw waaw loolu mi ngi ci waaye léeg-léeg ngi si borom kër gu bëgg jàmm waaye dugg ci soxna soo xam ni àdduna am tukkin waaw waaw waaw am na góor yoo xam ne ñamewuñu sax dem daayira ndax seen soxna buy daayira di tas vingt et une heures dañuy daw sol seen dàll di daw waaw waaw ndax léegi ñu ni jàdd nga waaw waaw vingt et une heures dañuy daw waaw waaw daayira sax ñemewuñ fa dem ndax lool waaw wala bu ñu demee daayira foog ñu foto wu yónnee ko soxna si ci wetu micro yi wane ni ñu ngi daay <laughs> waaw seetal boobu loolu jaru ko waaw seetal boobu coono waaw moom demul kay yow nga bëgg àgg ba noppi di foto ci micro yi pour wane ni yaa nga seetal loolu kooku coono lay mujj na waaw te loolu baaxul. baaxul waaw sa boroom kër bul yóbbu mukk fitam baaxul waaw waaw baaxul waaw baaxul de boo ko mënee it bu ko def waaw boo mënee yóbbu fitam it bul yóbbu fitam baaxul waaw baaxul ci seen doom bu ko def mukk loolu kenn du ko def waaw loolu kenn du ko def yàlla mën na la may nga mën ko ci moom mën ko tiital mën yóbbu fitam ba mu jaxasoo mais bu ko def waaw même boo ko mënee baal ko baal ko bu ko def waaw loolu kenn du ko def <laughs> am na ñoo xam ni lu nu mën rek wan waaw am na ñoo xam ne lu nu mën rek wan la ko waaw mais kenn du ko def baaxul waaw baaxul ci sa tarbiya spirituellement baaxul ci sa élévation spirituelle waaw baaxul ci sa élévation mystique waaw waaw loolu loolu baaxul waaw boroom kër dangay fexe ba dalal xelam waaw boo dalalee xelam rek yàlla dalal sa xel waaw waaye bul yóbbu fi mukk waaw loolu kenn du ko def waaw ndax am na ñoo xam ni yàlla dafa dogal seen fit mënatuñu toog ndeysaan waaw waaw fu ñuy dem fotowu ni maa nga fa bu ñuy àggee eh, daal di def vidéo wane fii ñu toog pour fan la <laughs> da ngay mujj sonn sonn sonn ba penc mi dañ lay jéppi ndax coono bi nga leen di teg waaw te loolu baaxul waaw su nga defee nag li ci soxna yooyu di ko def bu ñu génnee dañuy bàkku waaw man dañu xam ni man gis nga sama waay moom foog mu yónnee ma foto nang fekk loolu loolu du cër waaw loolu loolu loolu loolu du cër mukk waaw waaw loolu kenn du ko def waaw ndax nit ku nekk ak dundam waaw nit ku nekk ak dundam te nit ñi bokkuñu waaw ku ci nekk ak li la yàlla jagleel waaw ku ci nekk ak la yàlla jagleel waaw ci nekk ak la yàlla jagleel waaw ndax nit ñi bokkuñu mission waaw waaw ndax nit ñi bokkuñu mission waaw te loolu rek am solo waaye nit ñi bu ñu xamee dëgg-dëgg sa dund ñu ànd ceeg yow. nit ñi bu ñu xamee dëgg-dëgg sa dund ñu ànd ceeg yow waaw waaw man yàlla dimbali na ma ku may fasante kóllëre ci wàllu sëy loolu laa lay njëkk wax waaw ni ni ni leen man kenn du ma contrôler waaw la koy wax ni la kenn du kenn du laaj fu ma nekk fu ma jëm fu ma nekkoon biig fu ma nekkoon bërki dem kenn du ko laaj maay jékki saa rek feeñ jékki saa làkku jékki saa kenn du xam fu ma nekk waaw ku ko ci mën nag ma ni la ay ku ko ci mënul nag ma ni baax waaw loolu laay wax waaw ndax dama xam ni may dunde Cissé mii Mamadou Cissé mii dëkk Medina Cheikh daf ko daan wax léeg bu daan gis rek ñenn tooñ ko ay eh, ñun de moom bu nu sang bi dencoon xam naa ne sang bi ku baax la ñun ku mel ni moom la ni ña mu ni leen bu ngeen xamoon sang beeg dundam Cissé mii daf ko daan wax di ngeen ko moytu waaw Cissé mii moo ko daan wax gars yi waaw tooñ leen rek ni gis nga bu ngeen xamoon sang beeg dundam. ni koo xam ni guddi yëpp xamoo fu mu ne waaw doo xam fu mu ne ba dangay xëy rek gis ko xamoo ban heure nga koy gis xamoo ban heure nga koy gëj a gis mën na ñëw bëgg toog defe nit jeex na waxtaan a ci des mu jëkk sa dootoo seen fu mu jaar mu ne bu ngeen ko xamoon di ngeen yam ci ñi nga xam ni bis bu ne ñu ngi toog ak yéen feneen ku laay di attaay ak di yeey gerte waaye wax na dëgg waaye nit ñi dañ lay gis ngay dund nii rek te duñu xam lan la waaw nit ñi dañuy gis ngay dund nii rek te duñu xam lan la. waaw du ñu xam lan la waaw waaye fekk na rek li may faral di wax toujours ci relation yi ni lenn looy dugg rek na nga ko éclaircir waaw ko éclaircir waaw waaye nag dund boobu moom ñu bare xamuñu ko ci man waaw man sama dund stable waaw waaw gis ma lu jafe la guddi surtout guddi nag waaw surtout guddi waaw dañu nekk ci mission guddeeg bëccëg waaw te am na yoo xam ni moom imaam alxaaji dama ko ko daan tooñ ni ko yow yaa xam nu ñuy dundalee kër ndax da ngay ñëw lal teg gerte gi teg bara doy léegi dama daan tooñ waa bi ne roy leen imaam alaaji xam na nu dundalee kër day teg gerte teg attaay ji ñuy waxtaan rek waaw waaw nun talun loolu boo yéeyee ñaari gerte sax waa xëy bu ñu ngi naan la am na lu xew ca kaw waaw nga xam ni gerte ga bu safoon suukar sax dootoo xamati lu mu sax waaw ndax mission moo mel noonu waaw te missionnaire moom noonu lay mel waaw su ko defee nag ñii di nekk ci xadara bi ñëpp léeg yàlla nattoo leen borom kër gu mel noonu xam naa nattu lañ koy tudde waaw su ko defee bu leen ko nattoo ñu muñ rek ndax boo muñee am doom ju baax waaw te loolu moo am solo loolu la yonent bi daan digal jullit yépp surtout jullit yu jigéen waaw moom la leen daan digal xam nga moom dafa bari kerse moom yonent bi daf leen di woon ni dafay wax lépp lu jëm ci seen diine waaye léeg leen lu laaj ka laaj yoo xam ni daf koy xaw déranger te forcément mu tontu ko ndax jàngalekat la islaam ak sant mu tontu su boobaa daf koy dégg daf koy dee sayyidatuna Aïcha ni ko wax leen lii wax leen lii wax leen lii waaw su ko defee sayyidatuna Aïcha daal di tourné waaw daal di ñëw nag ni leen defee leen nii defee leen nii defee leen nii waaw te fekk yonent bi lañ koy laaj waaw yonent bi lañ koy laaj seetal yàlla dénk la mission jox la nu toll ni alxuraan nga jaare ci mënatoo am vie privée moom yonent bi waaw minute bu ne jullit yu jigéen yi di ñëw di ko interroger waaw nan la ñuy doxalee nii nan la ñuy defee nii suñu boroom kër yi nan la ñuy doxalee nii léeg-léeg ñu laaj yonent bi ba laaj ko loo xam ni sax dafay rus di leen ko interpréter su boobaa mu ni dinaa la booleeg Aïcha waaw te foog mu wax ko de ndax dafa war a jàllale message bi waaw mu mujj woo sayyidatuna Aïcha wax ko ko waaw woo sayyidatuna Aïcha wax ko ko waaw ni ko daal wax leen lii naa Aïcha wax leen ko jullit yi dem xam li ni jëf lan la ñu ànd ci di jëf waaw waaw ñu ànd continuer jëf. parce que mission la bu ko yàlla dénk waaw su ko defee nag noonu mu daan organiser jullit yi moom yonent bi mais noonu mu leen daan waxe li nga xam ni mooy seen sens su dund jubluwu ci woon lu dul suñu demee ñu mën yor seen kër mais mën jaamu yàlla waaw dafa bëggoon ñu mën a rek nekk responsable ci seen kër waaw jàngal seen doom yi nu ñuy jullee bu koor jotee ñu jàngal seen doom yi nu ñuy woore waaye ommat seen doom yi teg leen ci siraatal mustaqim loolu yonent bi bëggoon waaw ommat leen teg leen ci siraatal mustaqim waaye jàngal leen ni ñuy dundee nan la waaw moo tax jullit yépp mu ji doon ay éducateur yu mag ku mel ni Ababacar dem na ba kuy laajati nan ngay éduquer sa njaboot danga daan ñëw ci moom ni ko loo jëlee ci yonent bi mu ni la yonent bi daan na defe nii daan na defe nii daan na defe nii nga dem defe noonu waaw waaw loolu yar nañ ci ñu dul ñu dul jeex waaw waaw te li mooy ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même yéeféer yi doon xaar yonent bi làq pour ñu ñëw corrompre leen kenn mujj leen mën a corrompre waaw kenn leen mën a corrompre waaw am na ci ginnaaw yonent bi ñu ñëw proposer leen ñu jox leen lii ñu doxalee diine nii Ababacar ni ku ko ci wax bu ñu nee woon xare deewal nañ ko daanu dekkilaat xare waaw ñu ni lu tax mu ni parce que lu Muhammad mës nangu fekke naa ko lu mu mës a bañit fekkee naa ko waaw kon la mu bañoon démb lay continuer di bañ la mu nangu woon démb lay jël di ko nangu waaw ñu xam ni kon Ababacar responsable ñu ñu ñu bàyyi ko noonu waaw ñu bàyyi ko noonu waaye gis nga jamono day changé waaw jamono day changé moo tax ma Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani wax ni léegi li dal xelu nitu yàlla yi nee na mooy ñu fexe yar seen njaboot mystiquement. Cheikh Tidiane Chérif moo ko wax mu ni léegi li dal xelu nitu yàlla yi mooy ñu fexe yar seen njaboot mystiquement waaw parce que gis na ni boobu moo ëpp doole waaw defal leen éducation mystique ba fi nga bëgg sa njaboot jaar fa fa la sa njaboot di jaar waaw te loolu mystique gu alxuraan mën na ko waaw loolu mystique gu alxuraan mën na ko waaw moo tax mu ni dañuy fexe ba fi nga xam ni njaboot yi bëgg nañu ñu jaar fa ñu jaar fa mais ñu yar leen mystiquement. xam nga boobu lu tax mu wax ko dafa gis ni bu njëkk ba mbedd mi rek moo daan yàq xale waaye léegi internet baa ngi nii xale bi mën na créer mbedd mu yaatu ci sa biir kër te doo ko yëg sax nag waaw mën na créer mbedd mu yaatu ci sa biir doo ko yëg sax waaw ndax il suffit mu connecté pour site bu ko neex mu dugg fa fekk yow borom kër gi yaa ngi yar dëgg la waaye xëy na yaa ngi tëdd di nelaw taloo ko wala yaa ngi nekk ci yeneen yitte moo tax boo amee njaboot yar ko mystiquement ci alxuraan ndax mystique alxuraan mën na yar njaboot waaw xolam bu ci alxuraan jiitoo rek li ci des yàlla mën na ko ko mottali waaw waaye gis nga bu njëkk ba yonent bi moom dafa daan conseiller waaw yonent bi dafa daan conseiller bu woowee njaboot gi ñu ñëw mu ni leen xam nga lu may bañ ma ba tax ma sonn ci di leen conseiller ñu ni ko waaw mu ni mooy ëllëg ngeen trahir ma gis nga moo indi woon waxam jooju mu waxte ñenn ñi jël ko interprété ko ba finalement xamatuñu sax lu ci jublu waaw mooy ñi ngay dégg ñu naan déedéet ëllëg mu amul ndax gis nga yonent bi euh, woo na Fatima doomam mu ñëw mu ni ko Fatima sama alal ji loo bëgg jël mën nga ko ci jël waaye ëllëg ci kanamu yàlla mën a lu ma la dara di wax ma ni leen yonent bi boobu mi ngi yar waa këram waaw waaw waaye yonent bi ëllëg su mënul dara ci kanamu yàlla kenn du mën dara ci kanamu yàlla te ñoom yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an la ñu dégg wal amru yow ma izin lillah waaw waaye comme mënuñu interpréter les versets sacrés du Coran looloo tax ñu mën jël loolu rek delloo ko ci li yonent bi wax Fatima waaw fekk na yonent bi dafa ni leen boo gisee may sonn di leen yar mooy damay bañ ëllëg ngeen trahir ma waaw ba benn bis Fatima Fatima ndeysaan xaritu pàppam la woon mu bàyyi ba yonent bi dugg ci biir néeg bi mu fekk ko mu ñëw mu ne ko papa dama bëgg sooy waxtaanateeg ñun nga ciy génne baatu trahison ndax ñun sa njaboot boo toogee ci diggu màkk sunu nawle yépp di ñu déglu nga ni da nga ñuy yar ndax danga bañ ñu trahir ñu fi ma taxaw mu ni Fatima ni ko fi ma taxaw damay rus ndax day mel na ñun dañ lay trahir wala dañ lay waaj a trahir yonent bi daal di muuñ Fatima ni ko papa lan la mu ni ko dama am nawle bu doomam trahir mu ni ko kan la mu ni ko yasku yonenti yàlla noox waaw mu ni ko dama am nawle te yonent la yonent bu mot sëkk la bokk lu ci bokk ci ulu azmi mina waaw doomam moo ko trahir mu yonent yàlla noox yasku waaw mu ni ko kon ma wax ni bu leen ma trahir du du wax di sànni rek de dama leen xamal ni nattu yàlla fu ne lay jóge mu ni ko dama leen xamal ni nattu yàlla fu nekk lay jóge waaw te wax na dëgg wax na dëgg yeneen yeneenti yàlla nox xoolal doomam moo ko trahir waaw kan aan ibnu nox waaw moo ko trahir ndeysaan waaw dem ba mujj féete ci détracteuru tracteur mi waaw ni ko liñ doon wax yépp ma di la weddil bis bu ne ñu ni danga naax may xeexoo naan naaxoo ndekete yaa gën a naax ñépp waaw ndax yaa ngi nii daaj gaal ci désert ba noppi naan taw mi dafay sooxal àdduna waaw déluge bi ndeysaan waaw baay bi wax wax wax waaye déggul waaw boobu yàlla def ca wane lu am solo waaw li ca yàlla wane en premier mooy même bu sa baay dee wëliyu toppal ci tànkam boo toppal ci tànkam yàlla reconnaître ko waaw waaw kële ne kële ne yonenti papaam yonent la kële ne di Nuux yonent la doomam papaam yonent la waaw ndax doomam la xanaa kon mënoon na ni ci barke yonent bi baayam doon rek ñu sauvé ko waaw mënoon noonu ko wax waaye waxuñu ko waaw parce que yàlla nguuram aada bokk ci waaw nguuram aada bokk ci waaw nguuram yépp xaqiiqa la waaw moo tax Cheikh Tijani Chérif bés mu ni ma seen réew mii seen réew mii Sénégal ma ni ko waaw mu ni ma dina doy waar ma ni ko lu tax mu ni ma mag ñi gëmoon xaqiiqa ñëpp ñi ngi fii ci man barsax waaw mu ni ma mag ñi gëmoon xaqiiqa ñëpp ñi ngi fii ci man barsax waaw mu ni seen réew mi dana doy waar waaw di ngeen jug ak di daanook xaqiiqa di ngeen jug ak di daanook xaqiiqa waaye fu ngeen tourné seen aada waaw wax na dëgg waaw seetal magu xaqiiqa ya koo ci laajte ñun la génn na àdduna waaw mag mu baax moo ci xamoon ci dëkk boo demee diw nitu xaqiqa la woon ni anamu ñu ni diw génn na àdduna yàgg waaw nga demati laajteeti keneen diw nit ku baax la anamu ñu ni génn na àdduna yàgg waaw cheikh ni ma seen réew mi seen genn wàll mag ñi nga xam ni ñëpp ay nitu xaqiqa la ñu woon ñu ngi fii ci man ci Medinatu Nuur waaw waaw seetal loolu ca barzaqul maxtum mu ni ma léegi nag ngeen di jóg ak di daanu rek ci wàllu xaqiqa waaye fu ngeen tourné gis aada waaye da ngay dem ba yëg ni sax valeur essentielle yooyu nga xam ni moo doon wàllu xaqiqa valeur essentielle yooyu doon wàllu xaqiqa ak valeur culturelle yi ñoo tuddee wàllu aada da ngay yëg ni dañu dem ba léegi sax télescopage dafay am ci ñoom waaw ci ci xew-xewu diine yi waaw ndax xew-xewu diine yi toll na foo xam ni danga naan yonent bi nii la tërale ñu ni dëgg la waaye sama maam diw bi nekkoon fii ci taatu garab gi moom nii la tërale woon waaw xam nga kooku télescopage am na waaw entre valeur essentielle ak valeur culturelle waaw muy diggante aada ak xaqiqa waaw te loolu bu amee rek yonent bi yu bari def ci rocc loxo waaw ndax bu mu ko am fulla la waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ku am fulla la ci côté boobu nee na jullit yi ba léegi maa ngi leen di jëriñ ba àdduna di tukki damay continuer di leen jëriñ waaye ku ma ci seen nga bokk ci kuréel goo xam ne bëggatoo ma gis dootoo ma gis waaw yonent bi moo ko wax te loolu ca xadaratul ilaahi la ko wax ca xadaratul ilaahi la ko wax waaw bi nee na jullit yi dama leen di jëriñ te damay continuer di leen jëriñ ba àdduna di tukki waaye ku ma ci seen nga bokk ci kuréel boo xam ni bëggatoo ma gis dootoo ma gis loolu bu ko waxee junji la waaw bu ko waxee la nga cay dégg mooy bare na kuréel bu ñuy tudd moom yonent bi du ko reconnaître waaw moom yonent du ko reconnaître ndax kuréel ya mu reconnaître mooy boroom xol yu sell ya waaw kuréel ya nga xam ni ñu nga tënku ca xaqiq waaw nga xam ni seen dara aada nekku ci waaw su ko defee yooyu la yonent bi reconnaître waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nag moom par de responsabilité am ca xayb mooy fexe initier rox yi initier rox yi defal leen formation spirituelle waaw formation spirituelle Cheikh Tijani Cherif loolu mooy part de responsabilité am ca xayb mooy fexe initier rox yi defal leen formation spirituelle waaw parce que xam na ni formation spirituelle boo ko xasee ba am yu bari mën nga ci noppal. boo déggee leer daa ko enregistré ki ngay jàngal lumière dina ko xam ki ngay wax lumière dina xam looy wax ndax du ko xam nii nii waaye daf koy yëg waaw waaw du ko xam nii nii mais daf koy yëg waaw léeg nga dend ak nit di ko nettali histoire boo xam ne moom mi fekkewu ko ci xayb mais boo koy commencé nettali rek day mel ni ma nga fa woon waaw day mel ni bëtam dafa janoog loolu dafa dafay mën a dëggal sax li nga wax te fekkewu ko yàgg ko nettali kooku ku am formation spirituelle yaa ko mën waaw moo tax cheikh ni bu ñu bëggee sauver rox yi nekk axiru zaman nee na faw ñu jubluwaat ci loolu waaw nee na bu ñu leen bëggee sauver rek faw ñu jubluwaat ci loolu te wax na dëgg waaw waaw te wax na dëgg ndax nitu yàlla bu nekk ak sa jamono lu mu laaj waaw nitu yàlla bu nekk ak li sa jamono laaj waaw am na ñoo xam ne li seen jamono laajoon mooy ñu jël téere yi tijji ku nekk ñu woola wax la benn aaya lu muy firi nga dégg ko am na ñoo xam ne li seen jamono laajoon mooy ñu woola jàngal la masala yi benn par benn waaye am na jamono yu nekk lu mu laajit nga jël nit ñi jox leen kurus waaye jamono jii ñu nekk li mu laaj mooy jox nit kurus muy zikr salaatul fatiha mais doo ca yam nga téye loxoom di ko ommat waaw ndax yii xëcc di réeral nit dafa bare waaw waaw te yëpp xel la ni attaqué waaw waaw te yëpp xel la ni attaqué amul bu ci attaqué rox waaw xel rek la ñuy attaqué waaw yi xëcc yëpp di réeral nit xel la ñuy attaqué du nu attaqué mukk rox waaw ndax rox ci yaqin lay dëkk waaw bu dëkkee ci yaqin jeex na waaw waaye nag dañuy attaqué xel waaw yow yow nangam yow ndax nga foog nangam est-ce que nangam mën na am su ko defee ngay réfléchir di réfléchir ba ni wax nga dëkk. waaye attaquer rox mënuñu ko waaw attaquer rox mënuñu ko moo tax Cheikh Tijani ba mu nee ma boo bëggee segg nit ñi mu ne ma boo bëggee segg nit ñi le 29 ba may génn la ma ko wax ni ma boo leen bëggee segg xàmme leen waxal kenn ku nekk yow dootoo ko seedeeti na seede bopp waaw mu ni ma léegi nga segg nit léegi nga xàmme ku gëm ak ku gëmul parce que ku gëmul day fay dafay dem yoonam ndax mu lu seede bopp waaw nii la ma ko waxee te wax na dëgg wax na dëgg waaw wax na dëgg. ndax ndax nit bu mën mënul seede bopp nekkul ci dara ah. boo xamul ndax yokk nga ci wàllu yàlla wala wàññeeku nga wala ku baax nga wala baaxoo kooku dundoo ci certitude ah. mu ngi mel ni ku gëmm di dox ci benn yoon rek te xamul sax ndax moom lu baax lay def wala deful lu baax waaw ah, loolu du sotti li tax du sotti mooy toujours iblis day taxaw mu am benn côté boo xam ni moom lay xëccoo ak yow waaw waaw iblis day am toujours benn côté bu muy xëccoo yow. te mooy côté faible bi waaw xel mi fa mu gënee faible rek fa lay natt waaw bu nattee foofu rek sànk la waaw te lu ne dëna la ko te gis nga iblis bu gisee jeune buy jaamu yàlla lim lay njëkk wax mooy yow mii boo moytul daa dund téeméeri at looy sonne nii waaw mën nga fu mu ne foowe sa ndaw ba ci kanam waaw même bu dee da nga ragal yàlla sax dëgg la waaye fu mu ne yàlla dina la yërëm ndax après da nga ko jaamuwaat nga dox tuuti ni warul mën a nekk mu joxañ la benn euh, paa ci jàkka ji ne la gis nga góor gee bu mu retraité la dem ca jàkk ji mais tal woon jàkk ji ba muy liggéey nga xool ba yàgg rek ni wax na dëgg bu subaa nga sànni sa kurus dal di jublu ci caaxaan waaw fekk mën na am sax nga jublu ci semaine boobu nga génn àdduna mais fekk na iblis dominé na la waaw iblis dominé na la gis nga yàlla yàlla yàlla lu mu namm lu mu namm ci yiw ci nit ki la mu lay njëkk sàmmal mooy sa xel te bu sàmmee sa xel sàmm na sa imaan ndax mooy tax nga des di gëm yàlla waaw waaw bu sàmmul sa xel rek bàyyi la ak iblis sàmmul sa imaan mu rocc sa iman rek jeex na waaw mu rocc sa iman rek jeex na waaw te loolu lu jar di bàyyi xel waaw loolu lu jar di bàyyi xel waaw dama mës a ànd ak benn góor gu baax muy nitu yàlla ci axtaab yi la bokk sax génn na àdduna yàgg na nuy dox ba romb marché ba ñoo tuddee marché Pikine ñu gis ay góor toog nii ci benn ban ci côté jàkk di xaar timis ma ni ko ñii niñ la gëmee ndax yaay seen sëriñ bu ñu ñu gëmoon ni yaa fi jaar ak sa jàllaabe ñuy dox nii di waxtaan kon dañuy jóg daw songul waaw ma ni ko waaye xamuñu ni yaay romb nii seen kanam boobu ñu ngi toog ñoom yor seen kurus di xaar timis mu ni ma dëgg la waaye li ëpp solo loolu yëpp mooy ñu am imaan te fonk seen imaan ba noppi waaw mu ni ma ndax ay wax wax nii rek yorul yorul yorul diine yorul tariq yorul leer itam waaw ma xam ni góor gi am na lu ma bëgg junj ci ñoom waaw waaye comme jotewuma ak ñoom dara ma continuer nu romb dem waaw boobu dañu dafa bëggoon wax ni bari na ku naan di sama sëriñ di wéy sama sëriñ fekk fa diw jaar ak fa nga jaar bokkul sax waaw loolu la bëggoon wax dafa bëggoon wax ni rek revendiquer kilifa dangay ngay essayer nuru ko ba noppi ci ay jëfam ak ci ay waxam balaa nga koy revendiquer waaw loolu bëggoon jàngale waaw te ci axtaab yi la bokk waaw te ñi ngi dox nii côté marché pikin ma romb mag ñooñu ñi ngi toog di xaar timis ak seen course di waxtaan ci benn ban waaw ma ni ko bu nu xamoon ni yow la jóg nañu daw song la waaw mu ni ma dëgg la waaye daal lépp daal am na lu ko jiitu waaw ma ni ko lu ko jiitu mu ni daal imaan daal moo jiitu lépp waaw ndax wax rek nii nii daal yorul diine yorul tariq waaw te wax na dëkk waaw ndax moom ku sell la te lu sell rek la xam waaw te ñoom ñiy jàngale lu sell yépp njaboot gi nu am loolu la ñuy xool ci ñoom ndax mi ngi ci waaw ñiy jàngale lu sell lépp njaboot gi nu am loolu la ñuy xool ci ñoom ndax mi ngi ci waaw ndax dañuy jege yonent bi te yonent bi rek lañu bëgg bëgguñu keneen waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la bëgg. waaw waaw jaral na leen lu nekk nag waaw yonent bi jaral na leen lu nekk moo tax gis nga mag ñi koo ci gëstu ni yore na secret nangam wala nangam jawharatul kamal ngay gis salaatul fatiha bii salaatu ala bi nangam la bii laa ilaha illallahu la yooyu rek ngay gis ñu denc waaw nga xam ni ñi bëgguñu ñu tàggoog yonent bi waaw te yonent bi ku ko xam dëgg dëgg nag dootoo bëgg tàggoog moom ku ko xam présence am dëgg-dëgg dootoo bëgg tàggoog moom waaw waaw ndax être exceptionnel la boo xam ni yàlla defal na ko lu ne waaw ci jëmmam sax yàlla def ko ci def waaw ci jëmmam yàlla def ko ci def waaw te nit buy dund li mu soxla pour mën a nekk julli dëgg mooy lanootu dee sagesse gis nga bu amee sages lii tax mu nekk jullit lu néew lay doon bu yokkee tuuti rek ñu ni kii muminun xaqan la waaw waaye gis nga bu amul sagesse bu doon naafila bés bu nekk ca kaaba ga guddeeg bëccëg xolam dana des lu bari waaw moo tax sagesse lu am solo la waaw waaw te bi ñu laajee màndarga sages nañ leen koy xàmmee ci bu nekkee ci nit ñu ni mooy du xeeb doomu aadama waaw bi ñu laajee nan la ñuy xàmmee màndarga sagesse bu nekkee ci nit ñu ni li jiitu mooy du xeeb doomu aadama waaw lu ko yàlla yëkkati yëkkati du xeeb doomu aadama waaw lu ko yàlla may may du xeeb doomu aadama waaw lu mu kawe kawe du xeeb doomu aadama waaw parce que boo xeebee doomu aadama rek sagesse nekkatul ci yow waaw waaw boo xeebee doomu aadama sagesse nekkatul ci yow te bu sagesse nekkatul ci yow sa imaan dafay jékki saa dem yoon waaw loolu moo ci ne moo tax sagesse lu am solo la lu am solo la waaw xam nga ñu bare abasa wa tawalla ñu bari dañu defe ni xëy na da ngay dégg sax nu ni eh, yad yaddaange la ba yonent bi tourné kii ma ni bu dee yaddaange it yonent bi jóge na fi war na nu bàyyi xel dëgg-dëgg yàlla lan moo taxoon mu wax ko yonent bi waaw ñu xoolaat loolu ci pencu diine yi waaw ñu xoolaat loolu ci pencu diine yi ma ni ko parce que yàlla dafa bëgg xamal yonent bi ni ko notable ya ca màkk ak seen réunion yëpp amaluma importance gis nga Abdullahi ibnu Maktoum mii ñëw mën na am ngëm-ngëm gi muy amee après ci diine moo ëpp solo notable yi la ñuy réunion pour stabiliser dëkk bi waaw jeex na mooy missionnaire day xam priorité waaw mooy missionnaire day xam priorité waaw su ko xamee rek daal di noppal waaw su ko xamee rek daal di noppal ndax loolu mooy li am solo waaw li ci des yëpp amul solo waaw missionnaire da ngay xam sa priorité mooy koo xam ni ngëmam ngëmam jar na lenn li waaw mu leer ni la kii gëm na gis nga benn nit ku gëm moo gën junne nit yu la topp te kenn gëmu ci daal waaw ndax dañ lay tardeel waaw dañ lay tardeel waaw Cheikh El Hadji Umar nee na nit ñu bari topp la gëmunu nee na ëllëg dañuy da ngay war a jaar siraat gis nga siraat ni mel nee na ñu nekk fa di laxasu sa yére naan la dee dëggal bul jaar gën bàyyi leen ma ma jaar ba jékki <laughs> sax nee na ngeen ànd doo daanu waaw ndax ñoo leen ñoo la toppoon nga nangul leen ko te gëmunu daal waaw tandis que kenn ku gëm leçon ba nga ko jox lay jàpp fu mu mënta tukki ma ngeen gëm-gëm nga moo ëpp solo waaw moo ëpp solo te loolu mooy leçon de sagesse moo tax boo xeebee doomu aadama rek la leçon boobu nekkul ci yaw waaw su ko defee nag li ci des muy encadrement spirituel waaw encadrement spirituel ku nekk daf la war nga defal ko sa njaboot soo ko mënee waaw encadrement spirituel waaw ku nekk daf la war nga defal ko sa njaboot soo ko mënee waaw soo ko mënul nag boo amee ku koy defal sa njaboot nga sant yàlla waaw te mooy encadrer leen seen julli. encadré leen seen zikr bu dee jël nañu werd encadré leen ba yoon bi nga xam ni mooy yoon bi shariatu muhammadiya tëral ñu teg ci seen tànk waaw encadrement spirituel waaw lu am solo la su ko defee njaboot boo ko amee boo ko encadré spirituellement rek jeex na waaw encadrement spirituel nag mën na nekk recommandation mën na nekk ñaan booy jëmee ci njaboot waaw mën na nekk tette bi ngay tette njaboot waaw te tette njaboot nag boo ko mënee tette ci baatin mën ko tette ca zahir moo gën waaw waaw boo ko mënee daal moo gën waaw man daal gëw ma ni ki tuddee sa bopp ni sa njaboot la balaa ngay mën a wax ak moom faw nga jël téléphone man gëw ma loolu waaw man gëw ma loolu mukk waaw mën nga ko def nag waaye damay def ni sa cër dafa des waaw balaa ngay gindi sa njaboot faw nga jël téléphone composé numéro kooku ku dul wuyu téléphone lu bari sax ko man kooku du la gindi ndax du am jot waaw nit bu connecté mi ngi connecté kursam boo amee pouvoir ci salaatul fatiha war nga mën a interférer ak connexion ba même bu percevoirul message bi nga koy wax ci gént sax mu yëg ni def nga ci moom nangam ak nangam waaw lu am solo la waaw lu am solo la loolu xam ko lu am solo la waaw loolu xam ko lu am solo la. loolu la ñu tuddee encadrement spirituel waaw bu dee nag encadrement mystique kooku kilifa gu jiite njaboot moo koy defal njabootam waaw waaw mooy encadrement mystique waaw mooy fexe ba déjouer piège yi nga xam ni moom la ko affaire yi di di tëralal nga déjouer ko waaw nga déjouer piège yi benn par benn waaw loolu la ñu tuddee encadrement mystique waaw te balaa ngay mën a doon un guide digne faw yi nga mën ko ci sa njaboot waaw mën leen encadrer spirituellement waaye mën leen encadrer mystiquement waaw bu dee encadrer leen spirituellement nga def ci ñoom loo xam ne dana tax la nga leen sant muy zikr ñoom ñoo la koy gën a bëgg waaw la nga leen sant muy jaamu yàlla ñoom ñoo la koy gën a bëgg waaw boo ko bëggee da nga bëgg ànd ànd ànd ak ñoom bu dee encadrer leen mystiquement mooy nga fexe ba déjouer piège yi nga xam ni moom la affaire yi di di tëral jëmale ci ñoom nga déjouer piège yi waaw loolu la ñuy doy gëddu spirituel waaw dëgg la nag yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila dëgg la waaye bu ñu ko waxee kilifa gu mot kilifa moo tax ñuy wax waaw ko waxee kilifa gu mot kilifa moo tax ñuy wax te kilifa gu mot kilifa it lu jafe la waaw kilifa gu mot kilifa lu jafe la ci jamono. parce que dafa war a bari yoo dajale balaa nga koy mën a mot waaw te ya ngay dajale nag wax nit ñi def leen nangam moo ci war gën tuuti waaw moo ci war gën tuuti waaw ndax leer bu yaatoo ñëpp xëj nañ ci waaw leeru nitu yàlla bu yaatoo ñëpp xëj nañ ci waaw xam nga nitu yàlla kay li ñuy bañ mooy bokkoo ci bérébam nga nekk fa di ka ŋaañ waaye gis nga boo bokkul ci bérébam toog fële même boo ko ŋàññu leeram mën na la fekk ba fi nga nekk di la jëri waaw boo ko ŋàññee nag leer gi ñu dagg ko su nu daggee leer gi nag dootoo gisati dara dootoo déggati dara waaw waaw léeg itam nga gis ku nekk ci euh, tarbiya ku nekk ci tarbiya spirituellement ñu connecté ko muy gis lu ne waaw muy gis lu ne waaw ci xay bu bis bu nekk bu tëddee lu ne lay gént su toogee lu nekk lay gis waaw nga gis léeg-léeg mu dem deux semaines gisatul rek mu mujj daw daal di ñëw man mbaa alkuwuma ndax gisatuma dara nangam nangam mu ne ah gis nag kenn mënu ci dëkk di waaw <laughs> ci ci dëkk xam nga xaalu xal bi bu la la dikkalee sa xol di yëg ëpp sa gis-gis waaw waaw bu la bu la dikkalee li sa xol di yëg mooy ëpp sa gis-gis te yëg-yëg nag moo ëpp doole gis-gis waaw waaw loolu nag ñu bari xamuñu ko waaw ndax dañuy sofental yëg-yëg mais gis nga yëg-yëg moo ëpp doole gis-gis waaw waaw yëg présence yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp doole nga ni rek gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu bare xamuñu ko waaw yëg présence spirituelle am moo ko ëpp doole waaw ndax boo yëgee présence spirituelle am yëg-yëg bi mooy arrosé na ko sa rox arrosé na sa xol ba nga yëg présence am bu dee gis-gis bi ñëw na ci sa bët mu ngi ci sa xel yaa ngi jàkkaarloog moom waaw te nag mën nga ko gis sax waaye est-ce que jëmmam original bi nga gis waaw hijabam ñu ci bari moom lañuy gis waaw muy représentation moom lañuy gis waaw ndax yonent bi bët bu ko xool te yàlla dimbaliwu la sa peru bët dana toj ndax leeram bët bu ko xool te yàlla dimbaliwu la sa peru bët mën na ci jaaree toj ndax leeru yonent bi waaw ndax leeram na mu mel waaw moo tax xaalu xal bi yëpp bu la dikkalee jaratul ngay sonn ci gént yu bare walla gis yu bare waaye am na ñoo xam ne moom fu ñu toll dañu bëgg di gént waaw amoon naa benn xarit mu mës ma ko wax fekk dama ko joxoon benn sirru mu daan ko zikr muy gis lu ne ma ni ko sirru bi nag 41 jours la bu paree nga arrêté ko mu mot 41 jours mu laaj ma ne ma léegi ndax ma arrêté ko ma ni ko waaw comme sama xarit la mu dem ba ngoon ni ma duma ko mujj arrêté daal dama koy continuer <laughs> ma ni ko ko woon ni la mu ni ndax dama gëm ni li ma ciy gis bu ma ko arrêté it boo moytul sama gis-gis gi ci la ma ni ko nag gis nga ni médecin yi di def di consulter nit nii la garab gi ngay jël tel jour arrêté ko ma ni ko noonu la mysticisme mel waaw ma ni ko gis nga ci côté mystique nitu yàlla yi ñoo xam dose ya am na loo xam ne boo ko continuer rek mën na la gaañ waaw waaye mu def la ma waxoon mu arrêté ko dem ba ñetti fan mu ñëw ni lii laa doon bañ ma ni ko lan la mu ni ma gisatuma daal waaw ma ni ko nag sirru du pour gis rek ay ma ne gis rek nga bëgg mu ne ma waaw ma ko del zikr Allah waaw dangay bàyyi ma ne ko ba ba ba sa nelaw mu des cinq minutes nga nelaw mu ni ma waaw ma ne ko nga toog naan Allah Allah Allah ba teg sa bopp <laughs> boo tëddee fu ne daal la fa yóbbu waaw ma ne ko daa ko gis waaw parce que ismu zaati mooy tur bi gën a opérationnel ci turu yàlla yi ci wàllu basira waaw waaw ismu zaati nitu yàlla yi dong nee nañu ñoo ko mën a canaliser ba yow mi koy zikr li ngay gis nga mën a xam lan la ak monde bi ngay gis nga xam ban monde la waaw bu dul loolu doo xam ci ban monde nga ne waaw waaw doo xam ci ban monde nga ne ismu zaati waaw boo ko commencé surtout guddi dina lu yóbbu fii balaa nga fay jot a naan ndox di yóbbu di la fee balaa ngay jot a naan du yóbbu la fee dafay nekk ci xay bu di visiter rek waaw ma ni ko di ko def ma ni ko boo koy def léegi nga commencé lu ne nga gis ko waaw mag ñi dañ ci daan dañ ci daan ñaan ndigal pour wut kashf waaw kashful hijab waaw ñoom dañ ko daan wut waaw dañ daan wut kashfu ci loolu waaw yàlla may leen ko waaw kashful hijab ñoom dañ ko daan wut dañ ko fonkoon ñoom mag ñi waaw te xam nga lu tax ñu fonkoon ko du pour karaama de dañ daan bañ ko leen nax rek waaw dañ daan bëgg ku ñu gis xam ba nit nga loo leen wax ñu xam lan cay jël ak la ñuy delloo waaw mais wutuñu ko woon pour karaama de. wutuñu ko woon pour karaama dañ ko daan wut uniquement pour xam yow mi nga xam ni yaa leen di wax la nga leen di wax lan moo ca am ak lan moo ca amul ñu xam la ca am ñu téye ko la ca amul ñu sànni ko fële loolu lañ doon doy kàcc waaw ñoom loolu lañ ko doon doy bu ñu gisee nit it ñu xam kan ga waaw waaw ñu gisee nit rek ñu xam kan ga waaw ñu xam kan su ko defee bu ñu xamee kan ga ëllëg doo leen mën a sànk waaw doo leen mën a sànk moo tax nga daan dégg ñu ni la mag ñi dañu xam nit. munoo xam nit te amuloo cash waaw mënul nekk waaw munoo xam nit dëgg-dëgg ndax nit ni ñu koy waxee ni nit dafa lëndëm waaw ni nit dafa lëndëm loolu la ñuy wax waaw mooy mën na la wax façon bi mel neneen waaw te bu dee ci solu nga koy xàmmee nag tubaab yi ñoo ni l'habit ne fait pas le moine waaw waaw parce que les apparences sont souvent trompeuses te loolu c'est la vérité. ñu bari dinañu feeñ ak garaam mbubb feeñ ak reeju neex feeñ ak kurus gu gudd waaw feeñ ak euh, parfum jël lit diwoo waaw ñëw di wax di wax ba nga jiital leen ni mu xaddam bu mag ba ñëw na waaye bu ñu la wanee gannaaw daa regretté loo leen doon jiitale waaw waaw loo leen doon jiitale waaw lu am solo moo tax mag ñi boo daan ñëw neex làmmiñ di wax di wax ak solu bi rafet rek ñu xaw la ragal tuuti <laughs> ndax ba tàyyi <laughs> xaw la ragal tuuti ndeysaan waaw fekk bokkul sax dañuy xam nit rek waaw waaye nitu yàlla yi nag ñoom ñoom la yàlla jagleel ñu xam nit waaye gis nga li ñuy xam-xam nit yëpp léeg-léeg ni xamuñu sax nit nitu yàlla yi ñoom la yàlla jagleel ñu xam nit waaye gis nga li ñuy xam nit léeg-léeg dem ba yàgg nga ni xanaa xamuñu nit fekk xam nañ ñëpp. parce que ku ñu gis yëkkati la ku ñu gis teral la waaw waaw même bu ñu xamee ni kii sax du nitu dara dañ lay teral dañ lay yëkkati waaw su ko defee nag yow boo leen xamul da naan kii xamul woon diw ndeke fekk xam na ko waaw mais seen sagesse moo jiitu seen wilaya waaw waaw te sa sagesse bu jiitoo sa wilaya rek jeex na waaw ndax loolu mooy sens bi nag waaw sa sagesse bu jiitoo sa wilaya moo gën foofu ci nitu yàlla waaw parce que bu ñu lay catégoriser yaa ngi bokk ci wëli yu waaw mooy bu sa sagesse jiitoo sa wilaay waaw waaye bu sa wilaay jiitoo sa sagesse a ah, mën nga nekk waliyu de waaye nag duñ la yóbbu di la catégoriser ca waliyu pur yi waaw mën nga nekk waliyu nag waaw mën nga nekk waliyu waaw ndax bu fekkente ni sa sagesse moo jiitu dañ lay boole ci ñu yonent bi yar waaw dañ lay boole ci ñu yonent bi yar waaw te yonent bi nag yaram du jeex waaw yonent bi yaram du jeex mukk waaw waaw moom yaram du jeex waaw bis bu ne nga jàng ci moom loo xamul woon ci moom waaw te waxuma sax histoire bi ñuy véhiculer ci shahada rek waaw nii yonent bi fii la daan jaar nii la meloon diggante bu mu jógee màkk dem Medine déedéet waaw mais melokaanam spirituellement waaw melokaanam spirituellement waaw essence su lumière am xet bi muy dégager ca xayb nga xam ni malaayika yi dañ koy xëccoo waaw dañ koy xëccoo waaw ñoom ñëpp xàmme nañu parfum Muhammad waaw ñoom ñëpp malaayika yëpp xàmme nañu parfum wu Muhammad waaw te Muhammad demul foofu di parfum wu waaw waaye leeram la essence am moo dàq misk parfum misk waaw essence am moo ko dàq waaw moom yonent bi waaw moo tax nag bu la yaree boo duggee ca alamul malakot parfum boobu ngay dégager su ko defee malaayika yëpp dañuy tourner autour de toit di la seetaan ak di la xool di la seetaan ak di la xool waaw waaw noonu la ñuy def ñoom malaayika yi waaw ñu xamee ni sa capacité lumière mot na dëkk mën na nañu tafu ci yow daal di foon sa yaram malaayika yi dañ koy def nitu yàlla waaw mais balaa ñu koy def dañ lay natt waaw ndax bu ñu la nattul bu nu dalee sa kaw te ñoo la ëpp lumière bu ñuy dal sa kaw ngay jeexal waaw waaw bu ñuy dal sa kaw ngay jeexal ndax ñoom être lumière lañ waaye bu ñu yëgee ni sa lumière mën na résister seen pouvoir ñoom ñoom ñëpp da ngay gis ñu ñëw ci yow di la fóon nii comme ni nit ji di euh, fóonee koo sopp waaw waaw waaw malaayika yi dañ koy def waaye ci kaw nag ngay dégage parfum wu yonent bi si kaw fekk yonent bi moo la yar waaw kaw fekk yonent bi moo yar waaw tax yooyu danga koy gis léeg ci wàllu xaqiiqa ñu indi ko waaw ci wàllu xaqiiqa ñu indi ko xam nga ñu bari sax dinañ ko def léeg rek kilifa waaye fekk duñu xam lan la waaw boo gisee ñu mii noon ña nekkoon fees ña ca xamoon Cheikh Tidiane Chérif dëkk ñu mii noon bu ñu ko nuyoo dañuy foon loxoom mooy léeg ni ma leen di gis ngeen di def am na ñoo xam ne ñu ngi koy def boo leen laajoon lan la dañuy defani ni xorma rek la fekk ñoom ëppoon na xorma ñoom luñ ci jublu woon mooy deretu yonent bi nekk ci yaramam moom lañ daan foon waaw waaw deretu bi nekk ci yaramam moom lañ daan foon ñoom loolu lañ ci jublu woon waaw ñu xam ni kii kat kii kat doomu yonent bi xaqan la ci xaqiqa surtout yonent bi xaqan la ci shahaad waaw ñu xam Cheikh Tijaani doy na leen ci lépp deretu yonent bi daw ci yaramam ñu foon deretu yonent bi ndax day dundal rox xamam waaw day dundal rox waaw waaw kooku ñu bari xamuñu ko secret mystique la waaw nitu yàlla yi dafa ci am ñoo xam ni seen yaram boo ko fóonee yow ak ku jël benn parfum xenc ko gis nga parfum bi boo ko xencoo ni muy duggee ci sa put ba agsi ci ba nga yëg ni xencu nga produit boo xam ne bokkul woon ci li nga waroon respirer noonu la mel waaw li ciy génn ci ñoom mooy dundal sa rox day dundal rox dafa mel ni essence la buy dugg sa biir bakkan waaw moo tax ñu daan leelee jël sa loxo ñi foon ka ak gémmiñ ñi foon ka ak bakkan waaw waaye am na ñoo xam ni léeg du duñu xam sax ndax loolu la dañu koy mbëkk nii rek ba moytul sax ñu mbëkkaale sa loxo ba doo xam lan la am na ñoo mbëkk bi moom mënuma ko firi waaw mën naa firi nag foon bakkan bi ak foon gémmiñ waaye mbëkk bi moom mënuma ko firi xëy na am na firi nag waaw xëy na am na firi waaye tablo ya ca ba daal moom ci deret yi nga xam ni mooy deretu yonent bi kooku dañu naan benn da ngay foon deret ji wala nga ci deret ji loolu lañ daan waaw waaw kooku mag ñi dañ ko daan ñaan ci seen ñaan mag ñi dañ ci daan bind ñaan yu am solo waaw ñi miin ñaan yi xam nañ ko am na mag ñu daan bind di ñaan ni ni leen yàlla may ñuy xeeñcu ñuy xencu xetu ruuxu yonent yi waaw di xencu xetu ruuxu yonent yi di xencu xetu ruuxu nitu yàlla yi waaw parce que bu ñu waxee xencu boobu ñu bari dañ koy jàppe ci zahir bi rek comme topp waaye fekk na ëpp na topp waaw essence bi la ñuy wax waaw parce que xam nañ ni essence spirituelle boobu day dundal rox waaw moo tax ñoom ñu daan fekk Cheikh Tijani mu toog feranku laay ñu daal di koy nuyu daal di fon loxo mu xam ni liñ ci jublu mooy deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci jublu waaye mu xam ni luñ ci jublu itam dañuy dundal seen rox waaw mu nangul leen ko waaw mu nangul leen ko noonu la daan def waaw ndax yonent bi lu ko nit mës a demandé nangul na la ko waaw moo tax yàlla dafa demoon sax ba ni ko il faut ko euh, ma ma ma ma def benn mise en garde mu ni ko lan yàlla di ko nag d'accord naa d'accord naa ak yow yéeféer yi di dund tàllal la loxo gëmuñu la sax ni Muhammad ñaanal ma nga ñaanal leen waaye nag bu ñu deewee bu leen ñaanal waaw yàlla ni ko bu ñu deewee nag bu leen ñaanal waaw ni ko bu ñu deewee moom bu leen ñaanal d'accord naa nag ñuy dund ni la ñaanal ma nga nga nga daal leen ñaanal waaw waaye bu ñu deewee nag mu ni bu leen ñaanal waaw looloo tax jullitit loolu moo ko war waaw ki mu bokkalu religion mën na ni ko ñaanal ma nii mu ñaanal ko waaw waaye bu génnee àdduna nag mu màndu ci bu génnee àdduna mu màndu ci waaw loolu loolu la ko religion bi sant waaw waaye gis nga léegi aada tax na tàllatunu sax religion waaw aada tax na tàllatunu religion waaw ndax looy dégg boo ca demul dafay ñaaw fii la dëkkoon boo ca demul boo deful nii waaw léegi da ngay xool ñaawal sa digganteek yàlla ak ñaawal sa digganteeg nit ñi ban moo ci tane waaw nga dal di tànn yàlla moom boo tànn rek mu ànd ceeg yow waaw lu jar di bàyyi xel yonent bi xamoon. sagesse am xam yonent bi yaatoom ba yàlla xam ne boo ko ko waxul léegi mu commencé di leen ñaanal waaw yàlla ni ko nag d'accord naa yéeféer yi gëmuñu la tàllal la loxo ni xam Muhammad ñaanal ma ñaanal leen waaye bu ñu deewee nag mu ni ñaan waaw mu ni ko na nga màndu ci ñoom waaw te seetal yonent bi gëmuñu ko kat ñu ñëw ni ko ñaanal <laughs> te nee ñu gëmuñu ko waaw gëmuñu ko ba noppi ñëw ni ko ñaanal ñu kon kay wóolu nan ko waaw ah, waaye nanguwunu wóolu li muy woote waaw wóolu li muy woote ndax seen problème moo tax waaw seen problème bi ñu am ci seen xol seen problème bi ñu am ci seen rox moo tax waaw te boo amee problème mu rox am problème mu xel xol problème mu xel moo ci topp mooy doo mën ni kii yaroo démb sama kanam nekk na yonent doo ko mën a nangu waaw ñoom moo tax ñu rejeté woon yonent bi catégoriquement waaw xam sage sama gi yëpp waaye teewul ñu rejeté ko. waaw teewul nu rejeté ko waaw moo tax Isa ibnu Maryam yu bari dañ ci waxtaan waaw jamono yu bari dañ ci waxtaan waaw ci ardul xudsi waaw ardul xudsi parce que mënu ko bañ waxtaane dëkkam la waaw dañ ciy waxtaan violence ba fa am ak guerre ba fa am ak du jeex ak sànnante dojee ca masjidil aqsa ak ci diggante masjidil aqsa ak yeneen jàkka ya kenn xamul na mu mel lu nu wax rek mu ni ma nattu la waaw lu nu wax rek moom Isa ibnu Maryam mu ni ma nattu la waaye nattu bu war jeex la nag waaw ndax moom nee na gëmatul ni ngëm ngëm dëgg gëmatul ni ma nga fa waaw mu ni ma ngëm ñu ko fa dese ñu néew lañ waaw ma ñu ko fa dese ñu néew lañ waaw Isa ibnu laa wax waaw waaw mu ndax ñii nekk fay jullit te nekk ci masjidil Aqsa mu ni ma ñu bari daanu nañu ci piège u Israël waaw Isa ibnu Maryam moom ma ko wax mu ni ma jullit yi nekk masjidil Aqsa ñu ci bare daanu nañu ci piège Israël yeey waaw te teewu leen ñu nga ca jàkka ji di julli de waaye lan la nee na dañuy dem ba dañuy jullee xol bu naqadi guddi ak bëccëg te loolu baaxul waaw dañuy fas seen xol nee na rancœur ba mujj na dañuy kàbbar janoog yàlla fàtte ndax janoog nañu yàlla ndax seen xel a nga ci juif bi nga xam ni bu génnee fu mu ne ma nga gaare char ba war a sànni doj wala ñu war a sànni teg moom doj te kooku ñun fii ci senegal moom la ñuy tuddee ni diw mi ngi julli waaye teewlootu waaw xamoo booy julli ba teewlootoo julli ba demeetul noonu kii julli ba teewlootul waaw kii julli ba teewlootul xam nga ko jiite woon nitu yàlla ba rek wax naa leen ko ñëw taxaw imam bi taxaw di tëri ba yàgg xalaat marchandise yow ca marché nam kay jaayeeg ka ko ci fayoon la mu ko ca fayoon ndax mu jël wala mu delloo mu commencé ca xalaat te mooy jiite <laughs> ay nitu yàlla bi itam moom fekk amoon na mburu ci poosam mu génn ko commencé lekk waaw imam bi sëlmal te xoolakat ni mu ko ni mu bëggee ñeme yàlla rek sëlmal tourné ni ko yow du lii laay wax wéeroo waaw ndax kooku doon jàppoon di wérul moom tam ni du lii laay wax wéroo mu ni ko wér naa sax de mu ni ko julli nooy jullee di lekk waaw ni ko loolu charia daf ko bañ di julli di lekk nitu yàlla bi ni ka comme damay julli ba yàgg may julli ci ginnaaw ki fi nekkul ki nga xam ne ma ngi ca marché ba di jaay ma ni ma profitu ndékki balaa muy dellu si waaw ko moo tax bi ngay dellu si fekk ne lekk naa sama mburu ba jeex na <laughs> yow sa bi dafa xaw yàgg ak la ameel bor wax wax mu la mu yëg ni ndekati nit a ci ginnaawam te xam li ci xelam waaw ngi ci ginnaawam te xam li ci xelam waaw te mystique yi Cheikh Tijani Chérif yar yëpp noonu mel noonu la nu mel waaw moo tax tooñ nitu yàlla ci kilifa ngay kilifa tooñ nitu yàlla wóorul waaw wóorul de waaw ndax mystique yi cheikh yar daf leen jàngal gis nga boo leen di jiita di imaam ak imaam boo mënta doon booy tëri fatiha balaa ngay àggal daan leen dee saar bi ngay tëri waaw mën nañu taxaw sa gannaaw boo leen tooñee wala dara juumloo la balaa ngay tëri sa saar bi waaw te xam nga xaafisul quran nga juumloo ko rek la bay xaafisul quraan nga juumloo ko rek la bañ waaw parce que boo ko am na kilifa yoo xam boo leen juumloo mën na toog ñetti fan du ñëw jàkka ja waaw waaw waaw ndax juum rek kat nit day juum ti waaw mais doo xam lan la waaw doo xam lan la waaw mës naa yebal waa xadara bi rek yàggul ñu dem ci benn xew ñu ñëw di ree di ma nettali ni benn mbokk dafa nekk di jaay dégg alxuraan jaay dégg alxuraan ba mujj di jaxase aaye mu jëwul lu dul naan leen dafa naan garab ak xam naa lu mu naan garab ma ni ciy wax ku naan garab da ngay tëdd looy wuti ci jotaay pour wax la ni diine ji genn wàll gi yëpp def nañ ko ngistal jaru ko waaw jaru ko waaw jaru ko diine ji genn wàll gi yëpp def nañ ko ngistal waaw di nga gis koo xam ne li muy tëri yëpp wuti ci yàlla wuti ci yonent bi la mu bëgg rek mooy nu ni mën na alxuraan waaw waaw waaye tëri ba mujj woo lu dul ni da naan garab moo tax nga juum ma ni ku naan garab day tëdd nelaw ku naan garab wuti ci jotaay <laughs> ñu ñëw di ma ko wax ah, doy na waar wax la ni yooyu boo ko boo boo ci deful ndànk mu dugal la ci ngistal waaw te ngistal baaxul parce que yowmal xiyam ñi fa perte ñëpp ngistal moo leen perte lu ngay def def jëf ju rëy ñëw laajte ana jëf ñu ni ah loo bëggoon nit ñi ni jàmbaar nga nit ñi wax nañ ni jàmbaar nga na <laughs> fekk yow yaa ngi ci doon xaar leneen yàlla fayu la ca dara waaw moo tax ngistal baaxul waaw waaw ngistal baaxul. lu jar di moytul waaw boo ci duggee daf lay yóbbu ci lu ne waaw daf lay yóbbu ci lu ne waaw li gën daal mooy fexe am sagesse ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa amee waaw loolu boo ko defee rek jeex na waaw waaye Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani moom ñi mu yar dana fexe ba mystique boobu daf koy def ci ñoom waaw imam bi leen di jiite mënu leen jiitu mukk ci saar wala aaya bu muy tëri te deewuñu leen ko ba noppi waaw te loolu c'est mystique waaw loolu c'est mystique noonu la nitu yàlla yi di opérer ci xelu jàmbur ba xam ndax kiy julli mi ngi fi wala kiy julli nekku fi waaw ba xam ndax kiy julli mi ngi fi wala kiy julli nekku fi waaw su ko defee ñoom dañ koy xam suñ ko xamee nag léeg ñu àtte woon noo xam ni doo xam sax la xam nga julli ba yàgg génn mburu ni da ngay ndékki ndax imaam bi dem na marché bay jaay bu dellu see nga pare kooku xam nga ni acte de sabotage rek nga bëggoon wane waaw waaye fekk na aussi mu bëggoon ko delloo si moo tax mu am solo nit xam dëgg-dëgg liy priorité am ci diine lu am solo la waaw boo xamee lii sa priorité ci diine rek daal di noppalu ndax am na yu bari yaa ci dugal sa bopp waaye jaru ko waaw jaru ko bërki démb rek maa ngi gis benn meurtre ci bu ñu wane fii xaw ma benn noddukat ñu naan rey nañ ko ak yu kenn xamu waaw yooyu jar nag waaw dem ba reyante ci ay noddukat ak ay jàkk yi bari ay champ de bataille la léegi waaw waaw jàkk yu bari ay champ de bataille la da ngay dem pour jiite xeexoo ci jiite rek xeexoo waaw pour jottali xeexoo pour jiite wasifa xeexoo pour ñaan wasifa xeexoo lu kenn xam waaw ma ne bu lépp dee xeexoo fu nu yu bari da nga koy gis ñaan wasifa xeexoo waaw waaw jiite xeexoo waaw te loolu te loolu teguwul ci yoon waaw parce que bu ñu ko tegee ci yoon rek lenn lu nekk ñu delloo si ko ci yoon war na ñu xam ne dëgg-dëgg du mébatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mébétam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw te ni ñuy wax ni ay taalibe tiijaan bu ñu bokkee malaanu wasifa bu ñu paree kenn ku nekk ñaan ba mu yëkkati ñaan ko ñaan boobu làmbu na ñëpp tànk jël na hadiya bi jox ko yonent bi jox ko Cheikh Tijaani Chérif waaw ndax kër gi benn la waaye léeg-léeg nga dégg fii nii la ñuy ñaane fële nee la ñuy ñaane fii kenn du fi ñaan nangam fii nii la ñuy ñaane yooyu ñoo ko créé ñoo ko créé waaye boo demee ca Medinatu Nuur ñoom ñëpp fa ne ndax benn kër la waaw boo fa demee ñoom ñëpp ñoo fa nekk te benn kër la waaw te kër googu rek am solo waaw moo tax nitu yàlla fexe yee salaat sa imaan dafay doon farata fexe ba sa connexion ak monde xay bu du dog mukk loolu mooy farata gi waaw loolu mooy farata gi su amee rek jeex na waaw waaw su amee rek jeex na waaw ndax ndax ndax loolu mooy li am solo. benn nitu yàlla laaj na ma ci benn taalibeem ndax nee na taalibe bi daf ko tëralal équation dafa ñëw ni ma sama taalibee bi dafa ma tëralal équation bu mel ni bu ñu tëralaloon yeneen ti yàlla Moussa aleyhi salaam ca diggante ba mu bàkkoo wax ni géej la moom waaw mooy bi mu waxee ni moom géej la mu ne équation ba ñu ko tëraloon nga xam ne xaadir moo ko mu mujj réglé waaw te ba ñu ko laajee diggante ka ñu soppi woon doj ak nga xam ne boroom këram dañ ko soppi golo mu dem ba ca xaadir ba xaadir ni ko yooyu yëpp yomb na àtti kii nii mënatul ànd ak nit kon na jàpp yëddam kële na le moom na jàpp ni kii dee ndax doj ke du du sëy ak nit waaw kon dee kii nag dañuy tas sëy bi mu jàpp iddam waaw mu ni ma nag équation bu mel noonu daal mu ni ma moom lan ma indilaat waaw te moom nitu yàlla la dafay teew xadara waaw moo tax sax xam naa mu am sañ-sañu wax ma ko ma ni ko lan la mu ni ma sama benn taalibe dama ko yar dama ko yar spirituellement waaye nag encadré wu ma ko mystiquement waaw wax joom am solo la mu ni ma dama ko yar spirituellement waaye encadré wu ma ko mu ni ma léegi affaire yi dañu ko dugal ci ay pièges waaw dañu ko dugal ci ay pièges léeg-léeg ñu defloo ko lu ne waaw mu ni ma léeg-léeg ñu defloo ko lu ne waaye mu ni li ma ci jaaxal dafa ñëw ni ma dafa ñëw avoué ko ba noppi ñëw ni ma moom lu ko jaaxal même bu nekkee ci lu neexul yàlla fiitam du daal te bu bu nekkoon ci lu neexul yàlla mu ni bu ci bu ci pare léegi une rek dafay jóg lal si jaadaam commencé jaamu yàlla waaw léegi nag mu ni mu bëgg ma stabiliser ko mu ni commencé naa di ko stabiliser mystiquement waaye mu dem ba ci biir mu laaj ma ni ma ndax léegi loolu du bàkkaar ndax du ci am bàkkaar waaw mu ni léegi ma ni ko mënuma la tontu ni bàkkaar la mu ni mu ni mu laaj ma ko pour ma jox ko ci sama xalaat ma ni ko fi mu àgg ci degré zikr mooy fi nga xam ne bu fa nit àggee connexion am digganteem ak boroomam du dog ba tax na même su nekkee ci loo xam ne jàpp na ni sax li neexul woon yàlla moom fii tam mi ngi tëf tëfi kon toujours connexion baa ngi marché ma ni ko yàlla mën na xool ci connexion boobu jéggal ko waaw ndax ragal na yàlla mais li ci des ma ni ko gis nga boo ko encadré wul mystiquement xam nga lu cay topp mooy affaire yi di dinañu mujj dagg connexion ba buñ ko daggee waxatuma la mu ñëw di avouer waaye day ñëw loo ko ni def nga ko mu ne la defuma ko waaw ma delloosi ko moom ma ni ko mooy li daloon euh, waa ji ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko lu ne waaw yonent bi laaj ko bëgg nga dugg ci diine mu ni ko waaw waaye mënuma bàyyi mënuma bàyyi naan sàngara mënuma bàyyi njaaloo mënuma bàyyi wax lu dul dëgg mënuma bàyyi sàcc waaw yonent bi ni ko yii yëpp daal ndax mën nga ci bàyyi benn mu ni ko ban parce que yu bare mënuma ko bàyyi de yonent bi ni ko nga bàyyi wax lu dul dëgg mu ni ko wax lu dul dëgg kese yonent bi ni waaw mu ni bàyyi naa ko mu yow bi gën a yomb nga ma nga ma wax ma bàyyi ko wax lu dul dëgg rek yonent bi ni ko waaw mu ni loolu mën naa ko bàyyi yonent bi ni baax na waaye gis nga yonent bu toogeeg saxaaba yi bu ñëwee rek yonent bi ni ko ah démb sàcc nga mu xalaat bëgg wax sàccul waaye comme wax na bàyyi na wax lu dul dëgg mu ni waaw sàcc naa rek saa ba kii sàcc la jël leen seen bagage <laughs> kii mu dérangé wu dérangé wu ba marité <laughs> bis ñëwee mu ni naan nga mu bëgg wax naanuma bu nee naan naa kii ivrogne la kii kay nii la mel jël leen <laughs> mu dérangé wu ba mujj mu ni naa bàyyi sàcc naa bàyyi naan sàngara naa bàyyi njaalo ca la jaare bàyyi la ba mu bàyyee lépp mu jaaxal ko ba mu ñëwee wax yonent bi yonent bi ni ko xam nga xam nga lu la bàyyi loo loolu yëpp mu ni ko waaw mu ni ko mooy li nga décidé ni léegi dëgg rek ngay wax waaw waaw fekkoon da nga continuer ni munoo bàyyi wax dëgg léegi daal da ngay continuer di wax lu la neex lu ma la laaj danga naan déedéet waaw dara du la dérange waaw waaw moo tax léeg nga sous-estimer ko fekk na lu am solo la waaw waaw wax dëgg lu am solo la waaw léeg nga sous-estimer ko nag waaye dëggu moom lu am solo la waaw parce que boo ko defee rek lu bari dootoo ci duggati waaw te yàlla moo lay dimbali waaw yàlla moo lay dimbali waaw moo tax yonente bi lépp lu nu waroon jàngale jàngale na ko waaw waaye seetal rek koo xam ni kilifaam àgg na ci moom foo foo xam ni dem na ba ñëw di ko laajal intervention waaw ndax man xam naa ni laajalu ko woon question intervention la ko doon laajal waaw ndax tey boo ko waxoon ca xay ba ni ko am na ci bàkkaar it da ngay dégg mu ne demal jàppale mu ñu dindi ko man xamoon naa ni loolu la doon wax waaw ko waxoon ni am na ca bàkkaar da dégg mu demal jàppale mu ñu dindi ko ndax am na nitu yàlla yu ko yàlla may waaw am na nitu yàlla yu yàlla may loolu waaw yàlla may na leen pouvoir bu ni toll waaw ñu mën jéggalul képp koo xam ne am nga musiba bu dox sa digganteek yàlla ñu dem def tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggalul la ko yàlla jéggal la ko waaw yooyu yàlla may na ko ay nit barewul nag ñu mu ko may waaw mais am na nitam yu mu ko may de waaw nga xam ni loo am ci jaar-jaar sa dund lu mu grave grave bu ñu defee tawasul boo demee barzak doo fa sax dégg ñu naan diw jaaroon na ci lii dangay mel ni ku beesaat tàkk ndekete lépp yàlla jéggal na la ko ndax yàlla bu bu la ko jéggalee rek dafay def ñëpp fàtte ko waaw malaayika yi dootuñu ko bindati ña la waroon xaare ëllëg loolu dootuñu la ko xaareti ëllëg kenn du la ko xoole waaw am na nitu yàlla yu ko mën waaw am na nitu yàlla yu ko mën yàlla moo ko def ci ñoom waaw moo tax nag nitu yàlla yi dem xadara ba suñu xamee loolu da ngay dégg bu ñu amee erreur bu mag bu seen taalibee def te ñu sopp ko moo tax ngay ñëw ñu koy laajteel looloo indi ñu koy laajteel remède bi lan la waaw remède bi lan la waaye ma ni ko daal gis nga nit tànk sa connexion sa zikr mi ngi dox sa xol mi ngi tëf tëfi ci ragal yàlla sa xol mi ngi tëf tëfi ci jege yàlla loo def lu nekk yàlla mën na la dimbali ba nga xëy génn ci di def lu baax waaw ma ni ko waaye bés boo xoolee ba iblis dagg ko bis boo ñëwatee nii ngay wax day avoué dootul avoué dara loo ko wax mu ni defu ko waaw loo ko wax mu ni defu ko waaw te boobu mooy mooy mooy bi bi boobu mooy bi dangereux bi waaw moo tax boobu yàlla nañu ci yàlla musal waaw loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal waaw waaw loolu yàlla nañu ci yàlla musal ndax bari nañu mu yàq waaw bari ñu nekk ci yoon ba yàgg yàqu fekk li leen yàq dëgg mooy ñàkk xam fi ñuy teg seen tànk wala ñàkk gëm dara waaw waaw ndax loolu moom boo ci duggee rek mu yàq la waaw te bu la xasee ba détruire nag boo amatul foo sauver jeex na waaw boo amatul foo sauver jeex na waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dong la ñu am comme sauveur waaw bi sallallahu wa sallam dong la ñu am comme sauveur waaw jamono ju nekk yi li ñuy dimbali sunu digganteeg moom mooy ñu di ko bàyyi xel waaw ñu di ko bàyyi xel waaw te boo koy bàyyi xel da ngay am la ñoo tuddee esprit de dépassement waaw da ngay am la ñoo tuddee esprit de dépassement waaw nit day fexe am esprit de dépassement lu am solo waaw mooy nga fexe jéem a rek. li nga xam ni jaru ko nga xam ni jaru ko waaw bañ nekk nit kuy jàpp mer jullit du jàpp mer jàpp mer baaxul waaw du jàpp mer jàpp baaxul mën nga mer nag ndax kenn terewu la mer mer ci nit la bokk waaw waaye nag jàpp mer abadan ci koo xam ni xëy na sa noon la rek nga ni noonu abadan la damay mer bu ma nuyoo duma ko fay walla su ma waxee dara duma ko wuyu loolu kenn du ko def waaw loolu kenn du ko def waaw ñoom ñëpp dañuy fexe ba harmonie rek la bëgg ci biir jullit yi waaw wax naa leen ni yonent bi Cheikh Tijani Chérif ñoom ñëpp ku leen mës a tàggu ni leen damay toogi ca pénc ba liñ lay njëkk a wax mooy ndax mën nga fay nuyoo waaw waaw fàttali naa ko fi yàggul ma ni ku leen mës a tàggu muy yonent bi muy Cheikh Tijani ku leen mës a tàggu ni leen pénc ma laay toogi luñ lay njëkk wax mooy ndax mën nga fay nuyoo soo nee waaw ñu ni la demal soo nee mënuma fay nuyoo ñu ni toogal sa kër ndax nit daf lay romb ni la asalaamaaleykum nga continuer sa waxtaan te loolu day indi noonu. loolu day indi noonu baaxul waaw loolu day indi noonoo nit romb la ni asalaamaaleykum wuyu woo ko ngay waxtaan sa waxtaan loolu day indi noonu waaw yonent bi ak cheikh yëpp dañu soo melee noonu bul toog mukk ci mbedd toogal rek sa biir kër waaw parce que ku la nuyu da ko war a fay waaw loolu moo tax mu valide ci laazim nga mën di laazim nit ni asalaamaaleykum nga ni ko waaleykum salaam ba noppi continuer sa laazim waaw bañ ci teg leneen waaw loo tax mu valide ko waaw bi lay bañ bu noonoo bi amee rek jeex na. waaw bu noonoo bi amee rek jeex na te loolu lay bañ waaw moo tax loolu su ko defee jullit yëpp dañ ci war a bàyyi xel waaw jullit yëpp dañ ci war a bàyyi xel xam ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy puiser waaye xam ni aussi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu njëriñ ñu topp ci gannaaw waaw te bu ñu bëggee topp ci gannaawam foog ñu jàng su ay qualité waaw te wax naa ni bu ñu bëggee jàng qualitéem du téere yi ñoo nu koy jàngal Cheikh Tijani rek moo nu koy jàngal. ndax cheikh nee na seen farata léegi ci axiru zaman xam nga lan la mooy li yàlla wax yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima waaw nee na mooy farata seen farata ci axiru zaman waaw mooy di leen julli ci yonent bi fu ngeen toll waaw loolu la ñu jàngaloo te lool la ñu jàngal ah su ko defee nag ni ma koy waxee ni moom boo toogee balaa ngay jot sax di waxtaan daana ko gis cinq kër jot waaw xam nga heure salaatu vingt cinq minutes moo ci des xam naa guddi gi moom dafa gaaw waaw waaye nag fekk na liñ fi jot a barkeelu rek même bu doon kàddu nuyoo la bu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafay doy yiw waaw dafay doy yiw tabaarakallaahu su ko defee ñuy gërëm mbooloom njaboot gi fi nekk yépp tabaarakallaahu di gërëm mbooloom kilifa yi fi teew yépp waaye di gërëmin mbooloom compagnon yi ñu bokk ak jotaay bi yépp di wax ni guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom déplacement rek toog ci place bi déglu ñu wax la yonent bi rek doyoon na ci fànn yépp waaye tabaarakallaahu yàlla dimbali nañu ba ñu barkeelu quelque kàddu donte guddi gi nekkoon na guddi goo xam ni tabaarakallaahu guddi gu gaaw la waaye nag fekk na yiw yàlla yaatu na kon yàlla na ko yàlla ful yàlla na yàlla ful yiw bi ba ñu fi nekk ñëpp xëcc ba ñu fi nekkul sax ñu xëjal leen ci tabaarakallaahu yàlla sàmm leen ci zaahir ak ci baatin yàlla may leen gudd fan may leen wér-gu-yaram mbooloom ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi liggéey ci mission bi ak ci branche bu ñu mënta nekk yàlla na leen borom bi subhaanahu wa taala jàppale may leen wér ba noppi may leen mën-mën ci zahir ak ci baatin ñuy remercier aussi suñu télévision yi nga xam ni yëpp ñoo ko diffuser en direct jiital Medina Cheikh TV wala Duniyaati ay ni Nour Al ak ak Nouri Mutalsam TV ak télévision yi nga xam ni yëpp tabaarakallaahu teew nañ fi ànd ak ñun ci événement bi ba nga xam ni ñi fi nekkul biti nekk bitim réew ñu ngi koy suivre en direct ñoom tam ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla. li tax mën nu voyager ba agsi waat Sénégal yàlla na leen ko yàlla yombalal ba nu mën a ñëwaat fii ba toog ak ñun ci béréb bi tabarakallahu waaye yàlla defi lépp di barke te lépp jig leen tabarakallah kon ñi ngi dellu di leen sant dellu di leen gërëm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek yàlla yàlla baawaan lépp di yiw mu may leen mu doon yiw yiwu fajub haajo waaye may leen yiw boo xam ne dana doon wér-gi-yaram ci yéen waaye may leen kóolute ci seen rox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 ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tijaan